atisoolu kidima ndi nyulla naatawo kajaloo gaanyandi nyulla naatawo kajololu fanan fintindi facebook oto youtube facebook oto nkoye ko youtube gambia talent muna promotion lem gambia talent muna promotion ngonda jaworode bari bunka wate wate buna ngejuɓele wate wate buna ngela moile wate wate buna ngela kuomila gambia talent woy gambia talent woye ngoye dunle nata oy kantoli kidimandi kantoli sewondi kantoli nganyandi gambia talent buna gambia talent buna gam talent woy gam talent woy ay wali pa ousmane diouf one time you know man and, and, and, and, and gambia talent um, promotion tv all that léegi Me soo leen blue gis lu xew si dëkk bi ak lu waral warul si dëkk bi TV bii la fii la fii fans yi ak am the jaama yi ak xeetay welcome to Gambia Talent TV show you get me Send xool xalaat yu bon yi nañ ko sànni fële si mbalit gi li xale ndaw yi toog di ko cause Peppa TV bu nekk si tundi Gambie Gambian Talent TV is seeni baay man won paak maa ko wax ku ko dinaay nga def lenen comme gars ñu ñoy defé yaa nga understand ñu ñoo fi ñëw horal di régler lu fi manqué di mutal lu fi manqué di def lu fi kenn deful mu ngi Raimome, presta Entertainment, keep it locked to Diamond Talent Promotion each day, every day for reliable information, entertainment, everything you need in the world of you know social media, you have it. ningam miiralum min na wuli tan koye kombita duniya tamantama ola jinjino ko birin mitala birin bareeda so min nannatan ninna baagu baalota mbeñajumeelaagom a koñña koye fere taalade lunjumaale dumminaala majaabinowalaa bari biril lo tang kodi anyaji yo wala baita kadi makine la tala ye tala la param manalo la mane sudu wanyir janne minala memma so kiti ta na tolo timata honin ta tang konsi simuni fai malong itela muntela pompiteri bati na pompiteri nderajatakannima itala muntala maasipateetoti maasipateetoti emunderajatakannimaati najatakannima ciwaw yo bala the evil hunter gambian talents promotion gawala jibe every time keep watching it and like our facebook page ciwaw ñuy seetaan si ñeneen ko ñi àdduna fu ci waay ti nekk penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu leen a nuyu ci beneen yoon ci Soil favorite show bi ñuy wax face jóge face fii ci Gambian Talents TV nekkal leen ci gannaaw microphone bi di Pa Ousmane Diouf ah dellu si waat nañ fii nag tey pour waxtaan ak askan bi waxtaan ak yéen yéen ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi leen a nuyu ni ñuy nuyoo buur ma ne di leen dalal ni ñuy dalalee buur di leen tatagal ni ñuy buur ah nag ñu indil leen waxtaan bu neex face jàkkaarloo kan laa jàkkaarloo tey nag koo xam ne nag ab ndaanaan la nekkut gan fii ci suñu réew di Gambia Serigne Thiapa Thioly xale bu xëy si jamono sëy rek nekk te nuyu naa la sëñ bi. jërëjëf Pa Ousmane thank you <laughs> te moom am nga gan. te moom. tey kër gi xar ñaar. te ah, kay amuloo ah, gani bojo bojo. déedéet. man ko tey boo amuloo gàññ bojo bojo tey oh, moom uh-huh. sëriñ càppaacu la nga am tey xale bu xëy rek nekk ci xam lépp mën lépp te wax lépp tey man la <laughs> waaw maa fi tey de <laughs> Baba Jah tur boobu si boppam sax laa la bëgg ah. bi how did it came about naka la ñëwee anyway loolu moom de xam naa de ah, you know I was just sitting one day di uh-huh. déglu wasi yuusu ah way yuusu ndubi bu càppaacu bi rek neex man de saan ma xam naa lii de uh-huh. yu parce que Youssou Ndour mu ne xale bu xëy rek nekka ca man de man de xale bu xëy rek nekka ca la parce que man moom benn bés laa jóg rek dugg Facebook start live start the def video hamga. Mm-hmm. at the end of the day hamga. so today I see myself with you know thousands of people that are watching me and I have millions of video videos yoo xam ne am na millions of view hamga. nga loolu moom de tey Uh-huh. sant yàlla la soo. soo woy Youssou bi daal moo ko inspire. waaw waaw. soo yow da xëy rek nekk ci. waaw waaw maa mel noonu. ñu ne daal woy bës boms nga woon am Gambie baba ja dëgg la ya awo sa boms sax man ko boms sax xaw da waaw wa waaye ah, pete maa ngi boms Amérique fii ah. tubaab rek laay topp ah <laughs> rek laay al <laughs> man fii waaw wax ñu tuuti si boms alive baba ja boms alive Pomse la man dama start Pomse si at the age of seven li moo tax at the age of seven years laa start di topp tubaab time boobu daala sa duma ko dee sol. really. time boobu. fan Brikama. Brikama Craft Market foofu ko starté then after Brikama Craft ah, ah, Market foofu la suma lii bi ah, lifin suma rank bi éeg start di dem Bakaw start di dem si hôtel yi suma rank bi éeg you know alhamdulilah you know foofu la amee liggéey. Oh, so yow oh, ok à ce bom sa mhm. dang daan mun a xëy dem ne ne non tey palmari ma laay dem non Sénégal bi laa war a dem no xaaral ma dem son wi non xaaral ma dem bakaw ndax eh. dang dee am foo xam ne yow foofu mooy sa base fi nga dee dallu non man duma dee base benn place mm, Brikama Craft Market laa start mhm. Brikama Craft Market ma dem Sanyang Beach Sanyang Beach daw dem toppatuwaay bi foofu after Sanyang Beach foofu laa ah, from Sanyang ma mhm. graduate foofu dem si airport bi time Columbus temps boobu tu ah, dafa amee ay plane boo xam ne dafa ñëw tey ñibbi tey ñëw tey fanaan ëllëg ñu dem tamit Columbus jógee foofu ma graduate foofu ma start Bakaw ma start Sunwin toj Sunwin dem yun maa di ko càppaaculu waay toj Novotel toj Palma Coste Sénégal bi ñan ñooy bi Amérique man angale Scandinavia Angleterre ban Angleterre. Angleterre ah, xam nga ñoom ok ah, ah, nit lañ ñoo xam ne seen xol bi dafa oyof. waaw te man di alhamdulilah tubaab ñoo xam ne dimbalañ ma in my life change ne suma life bi I can say 95 percent of them yëpp yëpp Angleterre lañ nekk. yan façon yan expectations nga daan am si tubaab xaalis bagage lan nga daan expect am naa fa xaalis bu doo jeex man tama naa xaalis time bu ma nekkee xale lasta di am xaalis xam nga time bu ma ah, nekkoon xaale su ma demee Bomsen tubaab yi su ma mayee xaalis yeneen saa yi su ma ñëwee suma papa daf ma di dóor dafa teg ne xaalis bi dama ko sàcc parce que xam nga tubaab yi ah by the time ma demee ay three hundred dollars yi spécially ah tubaab lifin xam nga xam nga tey leen ñëw soo Columbus mu ngee dem mhm. so eh, léegi si airport bi seen change bi yëpp dañ la ko demee sometimes su ma dem kër dama day yóbbu njoge sakumaalo time boobu maa ngi mm, remember sakumaalo it was uh, 150 dem 250 time boobu 1991 92 waaye lan moo la war a inspire do nga duggal ci bombs in are you from a uh, no family eh, ndax am um, um, daf la neex rek o o wat wa ndax sa xel ba naqari woon non doo daan try Ibu bu kata karam bu nga xali de ba ba ba na ci woon doo daan ci ba na ci woon dama dee dooj school school man dama dee dooj school man school dooj rek laa mun hakkiloo man di karam ko to ko la ilaha illallah nga faloo bu hakkiloo ko ni daal school bari hani de bari tubaaboo londo tubabu ba lundo ah. ana ala subhanahu wa ta'ala lodin ko yaje ila tubabu nin ko mbatale bulu landan mbatale bulu e eh, ala fanya ta bannan bulu tubabu londo fanya mun harja tubabu lonti road ko hani jamba bom a ashadu jantan tubabu le kadat jang mm. antan tubabu le kadat la ilaha illallah muhammad rasulullah mun sa betay bu ge bom siaro gi nekkani sa mo tubabu ya ba tubabu ya soo nga dem si bij bi ok lan nga daan làkk tubaab bi parce que yow ba tey jii ñi laa seetaan online ñu laa critique Baba Jah déggut angale angale mi forox yi soo waxee mu ñoo làkk angale ñu ngi laa critique si ne dégguloo angale so naka nga loolu moo nekk gis nga ah, lifin ah, ñu bari ñu ne suma angale bi surtout ak lii ak lii ah. ok xam nga lu ma bëgg pour nit understand as long as tubaab su ma ko làkkalee angale kooku da ma dee understand nit ku ñuul ñoo xam ne ñu ngi Gambia su ñooñu waxee ne day doon oh, oh, understand suma eh, English loolu de jaaxal ma man gis nga laaka uh-huh. as long as yaa ngi laaka uh-huh. nit mu ko understand mm-hmm. that's it man loolu la xam si laaka gis nga time boo xam ne maa ngi doon toppa tubaab yi dis mi pen laa doon wax dis mi give mi duma wax ah, du dee <laughs> mën a wax give me dix mille laa doon wax tubaab diis mille pen time boobu sax ah, mm. ah, ah, ah xam nga lifin tubaab bi mm-hmm. si moto yu mag leen dee duga moto yu mag yooyu mm-hmm. ndaama laa woon mm-hmm. suma adresse bi dama ko dee lifin laa amee banta bu gudda dama dee jël mm, banta bu gudda bi ma ubbi ko ni def fa suma adresse bi lii fi <laughs> ah. Joko <laughs> Tuma this is my address this is my address ah. when you go you send me book you send me. I was going to actually you sax because léegi am nañ Viber am nañ WhatsApp technology <laughs> Facebook Messenger and stuff. time boobu ok danga daan mun a keep up with tubaab bi ndax ku ñëw yow dangaa bombs just for the moment. suñ demee ah, some of them they keep in touch with me they they them ñëw ne ma you know they were take care ah, they were taking care of me. xam nga man start na the barke since ah, man start na the naa di toppatoo my family. Mhm. since at the age of seven years. seven eight nine because time boobu dama daan am xaalis ndaw na te suma gune gi nekk seven years ma ñu laa seetaan ñu bari dinañ ne Serigne Tappature dafay wax rek ma ne ma ne ma ne hmm? laajal ñoo xam ne ñoo ma xam biri Brikama man affaire Bamsin seven years seven years old laa start ah. ma ne seven years old laa start di toppatoo suma bopp alhamdulilah gis nga time boobu ah Brikama yëpp Brikama yëpp hmm. Baba Jah bu waa lañ ma den ooyee te alhamdulillah at the age of uh, years suma tubaab bi moo sampa waañ tubaab bi ñu ngi ko wane Ralph Wirenström Brikama primary school ñaari waañ la fa sampa ak three classroom block la sampa <laughs> at the age of 12 years Brikama primary school ñoom ñëpp a ma xam time boobu ok so what wax ne Baba Jah du do I care what people say? Money, hey, you know, forget about no, oh, no, why. Danga xey rek nekk tadi. Money, money. Ya, rek gis Baba Jah all of a sudden claim bir kama yow yaa ko wax ni. Danga xey rek nekk. Yow yaa danga xey rek nekk te so ñu la xamutoon bir kama growing up. Dédit. Man ko moom yàlla man toon bir kama mu lu tangol ti. Maa wax. Waaw. Kuma xamul si dëkk boobu. Gan nga. Ah. E bir kama sa woy. Eh, ina sa lo. Ina mu lan saarul. Eh, wala la la xel la. Mbata ko njulo yaa saate wo saate ndem man sa dingol tide ah. ha wuluta kabilo mun kono ah. man sa dingol le bije wuluta man sa dingol ko andu fana defana ah. momu yale wuluta man sa sa yanot sa yano woto baba jamul lansaro <laughs> moom ci ñi dalal waa koo xam ne xamuloo ko woon Brikama rek yow gan nga foofu kon yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV face à face Pa Ousmane Diouf jàkkaarloog Serigne Thiapa Thioly Baba Jah xale bu xëy rek nekk ca xam lépp man lépp di wax lépp comme ni mu koy waxee moom la ñuy waxtaanee tey nag dinañ xuus ak moom si yooyu waaye it's important Baba Jah su toogee di def ay programme am di def comédiem di def ay waxtaanam du wax si boppam mooy kan foog mu jàkkaarloog ñu mel ni ñun ñu laaj ko si boppam mu wax ñu soo ngeen yow daal soo fan mooy woon sa base after fan ci hôtel yi ñoo daan gën a dox wala si bij bi ban bij moo daan gën a dox. ah time boobu ah, man kay ah, you know man kay dama dee lambaatu yëpp you tey Banjul sax waaw wat na ma man dama daan dox jógee fale fii laa dëkkoon Banjul Hegan number 29 foofu laa dekoon Banjul suma yaay xay suma yaay système bi Banjul la dëkka ah ah. dama daa dem Banjul suba mhm. ndeewoo sa wat na laa ko dee lifite dama dee runga from Hegan dem wat na toj wat na ak mm-hmm. ak ak na ak fii wat na la ak fii naka la Palm Grove waaw these two hotels mm-hmm. you know they were together xam nga mm-hmm. foofu laa dee dem wayaani wayaani ba you know li li fi lu ma am su ma paree rek dox jógee mile to dem dellu back to suma kër waaw fan la sa jànga man suma jànga grade 12 la em dem naa ba grade 12 ban school Kunta Kinteh laa wàcca waa ma wax la lu ndaw gis nga suma bési exemple bi xam nga ah, ah, dafa am dafa am objectif am théorie buñ ko indee uh-huh. nii laa def pen bi laa amee de def nii su su ma laalee A ma maak A ma defaat nii ma laal bii su ma laalee bii ma maak bii bët bi de nii la mel dama dee gumatu su ma laalee A ma maak A su ma laalee bii ma laal bii su ma lifinee lii ba a ah, ah lii ah foofu laa am de te loolu laa amoon te laa mën a def waaye tey de ñaata résolve nga wàccee. kan man ñaata crédit léegi xale yi. naañ naañ naañ naañ man ñëpp laa feel di. <laughs> man ñëpp laa man xay xama tey de man ol F nga am xay ol F la am di. xay xama de man ca ah, man ca dañ caa paajul. xaa xaani xaani de. feel la school nga dem ba grade nine nga am yëpp F. ala xaa xaa xaa xaani de alhamdulilah de. mpama ah, ya start le ka na ah, nga start le ya non fangoy since brin na. primary school mhm. na pa bi nga da hade school fees jola le nde tubaab lu nakara mo jo mhm. tubaab ñama dan fayal man tubaab ñoo ñoo ma dan fayal oh okay mhm. so alhamdulillah bi la tamit dañ amoon yaakaar si yow soo xam maa nga amee ay teacher ñoo xam ne su ma buggee a ah, jël foo si biir bi yëpp damaa joxe dara rek ñu jagarama spécial report report yooyu ñoo doon dem si tubaab yi man maa nekk càppaacoli ah yow tamit <laughs> yow da nga yàgg a du tey. tapale. ay da nga mun Banjul. ay yow da nga mun ah, moo tax ah, ah, ah man Banjul du ma dee soona. lu ma bëgg rek xam nga. you know everything you need you have a front way and back way. Mhm. yeneen saa yi you know su ma bëggee taf taf rek yoon bi lay jaar xam nga. parce que xam naa the system of the country some people you know they need money and I don't blame them so at the end of the day you know what they need is what I'm going to give them after guy top toppatoo suma kayit yi taf taf rek jox ma ma dem man nii laa mel dafa xëy rek nekk waaw à yéen ñi bugg a participer 678 608 33 22 ñu nekk America 678 608 33 22 ñu nekk Angleterre 161 ñu nekk Sweden 0855 92665 0855 92665 face à face su ngeen amee any question laajte pour perpétuer rek ñu dem ak moom tubaab yi léegi ñu ngi gis last week ñu nekk nii maa ngi post benn vidéo ki ñoo wax Rahim Gambian. si biij bi sex tourism ne tubaab yi dañoo ñëw di leen tëddoo was this existing during your time. yeah it was it was. tubaab mos na laa tëddoo. man hmm. déedéet. alhamdulilah déedéet nag ah xam nga. bu ko ji mm, gaay nag non naka nga ko xamee daf daan am sex bi nga dem si biij bi. waaw ok tell ok man ah, c'est que xam nga ah, man a ah, time boo xam ne. Mhm. dama daan bombs. Mhm. maa ngi client ñoo xam ne man ñoom laa jëfantool su ma amee tubaab boo xam ne mun ne man dama bëgg a jigéen ñu laa dee contact maa ngi amee ay taalibe yoo xam ne yu baax ñoo xam ne man maa ñoom rek ñoo ñoom ñoo ma ñëw gis ma wax ma seen boppa ne ñoom ay cagale yaa ay cagale waaw waaw ay cagale ay cagale ay cagale ñoo xam ne yow da nga def waaw ba way si 90 si baba ñu there was no telephone there was no mobile phone déedéet you know ma gisante ñooñu is very easy pour gisante ñooñu because lo no ah, ah, loolu it was around ninety six ninety no um, ninety five ninety five uh, no ninety four ninety five ninety six la time yooyu boo da boo da ba ah, de time man ñoo xam ne xam naa leen you know I see them around all the time xam nga so xam naa fu ñoo campé where I can see them xam nga so loolu rek la dañ daan ñëw tubaab yi ñaata xaalis about how much dañ daan fay sisters yi pour mu leen a non man loolu moo xaw ma ko man de you know dang daan am code yow waaw you know so su ma amee ñoo xam ne you know bugga neen jànxa you know ma ah, ma xam ne li fi leen tubaab leen you know so at the end of the day you know I connect them mm-hmm. tell us about the life of a bouncer naka nga dee def ne am xaalis what do you do in order to make it because like mention nga dang daan dem téye pipa jox ko tubaab yi wax ak ñoom mhm. ok léegi mention nga di raba raba you do mhm. am ay sex I mean ay sisters ay caga yu ñëw wax caga Gambia ndax yeneen xeet sénégalais man ah, man ñoo xam ne ñooñu laa doon lijalante ñooñu sénégalais lañ waaw sénégalais sénégalais lañ ñooñu so what a what else man suma bomsin bi nu ma ko ah nu ma méegee moom moo nekk man dama amee book dama dee génne tubaab yóbbu leen on a trip xam nga yóbbu leen like ah, crocodile pool yóbbu leen Brikama craft market wal leen lifini xam nga so léegi man album boobu laa amee mhm. because man fu ma dem dama dee ñetaaloo tubaab yi so album boobu laa amee so léegi su ma gisee tubaab dama laa woon man tourist guide laa mun naa laa génnee gis nga mun naa laa yóbbu fii fii nii la fii nii ngaa be waaye soo demee ak man nga mun gis Gambia dan nga demaa di tour operators because so demee ak tour operators you guys are going on a group uh-huh. so if you go with them on a group eh, ah, waaw xam nga so wow, wow, xam Why so soo demee ak man man maa yow laa so by the time xam then I understand Gambia. customize one and service Wow! provide so legi yo, you know ah, So bëggee. we can use a local bus taxi, local taxi, but how you join with Gambians in the same car, you know? Mm -hmm. So you can experience stuff there, or we can go and get a jeep. We go to the crocodile pool. It's me and you. And when I talk to you, you will understand. But when you go in a group, they charge you guys a lot. xam nga so at the end of the day. boobu tamit dafa illegal Baba ji because you were a tourist guide right. man time bu ma dem def ah, start loolu tourist guide they don't start tourist guide bi ñu ngi ko start boori xaw ma ah, ya two thousand lañ start loolu. ok official yi nga xam ne da nga am waaw so man you know ah, you know man kay balaa loolu lañ start loolu so xam naa loolu la. government bi mm-hmm. so time the government went and select few people. Mm-hmm. then new leen dem ñu train leen so they distribute them. waaw waaw in different hotels. Second concern was clear Babaja I deal with check the jaay sisters to have ñuy ñëw xelaatuloo ndax dinañ ci jëlee feebar wala I mean. Yo, we were just after your money. Yeah, uh, time yes. Time I was not even, uh, no, uh, I was even uh, thinking like what I was thinking and now suma halabi is different, you know. Leg magna hamna all this favor aku hamga. Why man even uh time you you tamade am I to abyo hamne Thailand buga. Suma to abi if they need Thai nyamusa hayakamba tedi eh ite. Thai To Thai, uh ah. Thai hamga. Manga ame a special bombs as you hamne I know them they sell Thai to babi suma Thai la buga you know. ma dem waxante booyu ma rabarab rek indi taay jo jox tubaab bi jox ma suma xaalis jox boobu xaalisam. to yow da nga daan am code ci loolu booy bi daf laa jox ba pare yow it am. waaw wala da nga daan teg. déedéet ah, ah, ah, booy bi. Mhm. daf maa jox taay man xam naa taay ñaata la. Mhm. xam nga mhm. booy bi daf maa jox taay let's say twenty five dalasi taay. man ma dem jaaka five hundred dalasi. maa ñëw jox booy bi 100 jël 400 def ko si suma poche bi jaamane ñooy. xaa ko laay laay leen mu ne say noon kii baa rek a jubida alhamdulillah na friend ñoo xam ne ntéerolo ni munul wulta ninety percent of them i be ka ñaamoo sabale i ka sigaa saba dool bi je ka dolo meŋ bot me a bot ntokay ah alhamdulilah musuma tux even cigarette duma ko di tux musulooy tux cigarette tux taay musulooy naan sànga ba ba tey jaane cafar tuuleen ja soo sa screen bi ni nga dee acte gars yi ne danga naan sàngara wala nga dee mandi balaa ngay ñëw baba ja balaa ngaa taxaw jàkkaarloo caméra bi wax dee wax ak kàddu yi dee génnee sa gémmiñ ak say manière. Mm-hmm. super hyper. Mm-hmm. baba ja ikay tuulee. you know I swear the Holy Quran man. ah mm-hmm. musuma naan sàngara musuma tux yamba ak cigarette sax because I'm always scared <laughs> bii bii rek bii rek laa em yàlla xam na wallahi yàlla xam na yéen ko déggandoor ñi wax ne dafa tuxtaay dafa naan sàngara wala li dégg ngeen li wax de mu ne tuxut taay naanul sàngara tuxut yàmba waaye nag diil na ko kon nga jeexal grade what was uh, your faith after grade 12. grade 12 man suma kay moo nekk man xam naa ne school kay I cannot do anything there. Mm-hmm. waaye yàlla ah, gis nga Paus. Uh-huh. yàlla is very fair. Uh-huh. yàlla du la may ñëpp. Uh-huh. am na ñoo xam ne ñoom ñu ma gën jànga. Mm-hmm. waaye te man seen i càppaacole. Mm-hmm. maa leen gën am maa leen gën am xaalis. loolu yàlla suñu borom rek moo ko mën. am na ñoo xam ñoo ma gën jànga uh-huh. waaye man i am proud of myself uh-huh. maa ngi amee suma kër yu garaaw yoo xam ne maa sampa ba jeex macha allah man maa nekk Serigne Thiapathiouli uh-huh. tax ah, yàlla du mel nit yàlla daf laa may la lale la lale la lale after grade 12 lan nga def man mm-hmm. after grade 12 apply a job so ma am job Hotel I was working there as a tourist guide mm-hmm. so man xam nga so then I was there then foofu laa ah, tase ak suma jabari tubaab bi mhm. so after la you know ñu takk sëy bi so ma dem Angleterre ma nekk Angleterre for two and a half years sëy boobu is not working well for me yekuin yo afana mal way la la la nga jël mu nga jël fa tey jàng kana ja kana jotande ba ma maa ngi woon Watford Watford laa dëkkoon a be a one and a half year la move Watford dem Bristol si suma sayti jabar bi foofu laa nekkoon so after you know say bi daal things are not working well xam nga so and then you know I we all you know decide to you know ñu tas say boobu xam nga so time boobu laa jóge si say boobu I moved to Gambia ma nekk Gambia for almost a year mm-hmm. you know dañ la deport da nga move to Gambia ne dañ la deport déedéet man kenn musuma deport yaa ma maa ñibbil suma boppa suma taalibe ñu ma ñu jël ci si airport bi ak suma bagage yi dama dem ba Gambia mhm. ma toog Gambia almost one year mhm. di lijalante suma ay affaire visa pour ñëw Amérique waaw pour ñëw Amérique ban year la ah, it was around Oh, yeah, so six, like, seven. Mm So after you know, I'm suma maneka gambe almost a year hunger. Mm-hmm. Mm -hmm. Why, why? In that one year, my dad stay in the Gambia. Mm -hmm. Time you know, uh, masuma jabari <laughs> to Babi, things was going in, uh, you know, up and down. hunger. why mm -hmm. you knew, you know, we see why hunger the things were not that much strong. hunger. Mm -hmm. So then after a time, you know, uh, mang for fa you know boys yaa ngi ah, du mun a dellu léegi xam nga lii I feel so pity for this backway boys you know because xam nga Gambia is a country where you know if you come back people will start asking you uh-huh. ah, people will start asking you ah, you know ah, kan guy delu. That is not your business. This is my country. So why are you asking me, Kanga Adelu? Okay. You know? So So then is this younger talk about the stereotype, right? Yes, yeah, yeah. It's very important because I'm na Bena Boy right now, Mungi Toki. Mm-hmm. Um, I prefer to keep his name anonymous because of linga wakni. ni <laughs> buga na ticket la buga pour he doesn't have help mu contact ma I posted it I could not put his name out because lu mel nii la moo bañ <laughs> last week two weeks ago booy yi nekk Bahrain when I was doing a show si affaire yi um, Saudi Arabia bi <laughs> am na booy yu nekk foofu noonu when I posted their picture ñu wax seen story ak naka lañ sonnee foofu ak some of the challenges they are going they were stereotype ba dañ am pour call ma fii ne naa génnee seen nataal yi and the like mhm. because of ni leen nit yi di callee leen di ah yéen da ngeen lifin so mhm. that fear of ñu stereotype leen that fear of ñu stigmatise leen wala ñu ŋàññe leen mhm. is actually why exactly so yow da nga dunda loolu waaw ya man dund naa loolu man I was the Gambia for almost a year waaye alhamdulillah you know time bu ma Gambia time boobu. I have my own car. I have my own house. I have my everything. man. bi moo ko doon waaw no because you know I built my house man. depuis ma ma ah twenty half years man balaa maa dem Angleterre pour base. laa jënd suma house ma sampa yëpp. biir Gambie. bi ay xamante ne si eh, ko doon. yàlla moo barkeelu man. waa xaalis si taay xaalis si jaay suñu sista si loolu bi foola woon xam mm-hmm. loolu bi foola man start naa di build human life it was around uh, two thousand and four five yooyu you know uh, time uh, building my life hamga ma am Jabar tubab he was doing everything for me hamga okay. so and then i got a job to uh, uh work in ma suma bena tubab um he's a british one hamga mm-hmm. so you know tambo blaster did you know uplift who's bopa man bala madam dem europe mm-hmm. la man gambia la barke mm-hmm. man nego europe la barke man gambia la barke man before i will go to europe i have everything that i needed I built all my houses before ma dem Europe léegi léegi ni maa ngi samp nii alhamdulilah léegi léegi nii Gambia. macha maa ngi amee beneen kër boo xam ne boobu laay samp léegi léegi nii. macha allah yooyu yëpp dama am man balaa maa travel dem abroad man li moo tax ah, ah may wax nit yi ne man Gambia laa barke de nekkul man dama ñëw Europe ma barke ku ma xam Gambia Brikama. kiso legi naka nga Amerika, Amérique tingi ci lijjanti ngeen nga doon lijjanti sa kii bi nga am. naka nga Amerika. Amérique. ma bo bi ci tapale la. déedéet dugalante du ko déedéet visa US amba Amerika. déedéet naka la. dama apply like everybody else rek. you know gaay jox ma dama apply like everybody else dama de with the right channel. you know, madam, ma apply, you know, ma give them some fingerprint, you just my everything. You know, man, uh, ñu ah, wal elect two o'clock ñu jël ci sa visa. c'est election when you just six. non oh, ki Obama. man dama ñëw fii foog naa ah, non non non ah, kii la ah, man dama ñëw fii di first week la kii nekk président. ah Obama. oh ok. Mhm. waaye kon yow ah yow kenn yow Bush moo la seet gis-gis sa affaire ba neex ko mu xam ne yow ku seet loxo nga. yow ah? <laughs> <laughs> di nga tekki si dëkkam di nga njëriñ dëkkam mu ne la yow tàmpeel naa la ah yow bus moo la xajal. suma nit la moo nekk suma nit. may xool lu tax nga xëy xëy républicain bi nag yow ñoom def si jàmba di. déedéet waaye Trump di no I have a very great uh, respect for them waaye Trump mom, mom, nga he's a pain in the ass I just don't know this man you know I just nobody can deal with this man he's just too much. ok It's just too much. So being in America, bete baba ja, matenka sa life, right? I mean, what have you been up to? Balaga kumase comedy bi, balaga nyong hamsering chapatuli, uh, uh, online and the like. What were you doing? I was do you know you know dama daan liggéey you know uh, ñaari tapale bi nga commencé fii di jaay gaaw broda si sister di déedéet Gambian si naka di leen baamal di leen égal lan nga doon def fii déedéet man time bu ma ñëw fii you know I was a good boy because xam nga mhm. time boo xam ne maa ngi doon ñëw mhm. time boobu suma bët bi dafa ubboon xam nga I know you know uh, live xam nga mhm. so dama ñëw fi ma find fii live boo xam ne soo dëgëree boppa da nga xam ne ñu nekk fi ñoo la gi naa dëgër fii <laughs> soo dëgëree boppa da nga xam ne tubaab ñu fi ne ñoo la gi naa dëgër ba rey la nii teewuñ ko dara soo you know I came here and I became a change man I became so good xam nga ma li jalante suma kayit man dama àgga fii rek suma wëli si laa jël ma eh, ah, teg suma wëli si laa stade lu jëlante kayit ma li jëlante ka ah, within one mm-hmm. ko fii balaa ñëw suma suma following year laa jëlante suma kayit yàlla def ñu may ma kayit ma am suma kayit maay li jëlante di dem di ñëw mm-hmm. di liggéey di góor góorgóorlu mm-hmm. so after laa seet sa affaire Facebook bi dugga start di post start di post start di post ba tey moom de alhamdulilah thing you put on Facebook? No, I cannot remember First that. video and what because I, know I was posting video why suma video bo xamne mo mm-hmm. taxadel euh dem viral. moo dem viral mo nek suma South Africa. suma South Africa bi that was wow ah. wow so wow Bobo I had a million bi within within 24 hours yes which make us so proud of yeah definitely that uh, one on record as the first Gambian uh, video time Bobo ñu bari ñu ngee coow bi it media ak whatever ak mm-hmm. individuals mm-hmm. but nobody did that mm-hmm. what was the content of that video Hamga nga uh, loolu dama ñëw so after Hamga nga all this bullshit going on in in uh, South Africa xam mm-hmm. so I decided you know because you know I was having uh, before it was only Gambians ñoo xam ne ñoo de seetaan waaw waaye alhamdulilah mm-hmm. time ma you know time bu ma no way then might this uh, uh, this video because i have some gambians who are sending me this video you know man you have to talk about this you have to talk about this so after Magis, this all this bs online munuma ts mababa hanga. Mm-hmm. so man i think i need to make a video about this south africa thing mm -hmm. For, uh, that was my first day put my jagar video internationally mm -hmm. man time boobu about what was going on doon wax about ak yooyu. yow Yaya Jammeh yow. waaw yow si yow da nga a wax <laughs> nga fàtte ma Yaya Jammeh dafa lundi bu toog a wax no problème. déedéet déedéet. man. lu ma wax si Yaya kenn ko xam ne mu ngi si plateforme bi wax na ko. man suma bopp xam. waaw. du benn yoon du lu ma la wax ma ne ma ne yaayaa jammee ma ne a président wu ne kaanu président ka moo bouton loole. waaw loolu laa wax waaw daf dee londi bouton. waaw loolu laa wax. waaw yaayaa jammee waaw dina laaj waaw ku wéet dina laaj ñoom loolu jamono jooju yaayaa jammee mu ngi nekk président. waaw waaw ma ah, lan la Musa def temps bu ma start di jagar vidéo loo xam ne man waaw waxuma ko the first thing moo nekk yaayaa jammee temps bu mu téye Amadou Sané. man hmm. loolu moo nekk suma fausse vidéo jagar Yaya Jammeh après ah, ah, affaire Amadou Sané loolu hmm. balaa million view bi la Amadou Sané hmm. téye na wax naa si ñoom kii ah, kan e, of course against oh, of course I condemn it and then téye na fii he is minister of President Affairs I made a video Manakone, kone bring a biri uh, tambodo neka president wat ne you will protect the law and you will respect the law but right now mm -hmm. uh, uh, um, Rather, you don't respect the law because you detained Sabali more than 72 hours, mm. which you know it is illegal. Mm. So that means you don't respect Gambians and you don't respect our law. Mm. lakawa. kawa. Saboy uh, manga. Mm-hmm. La, uh, ki, manga. Alaji manga. Alaji manga. Tienen go. Mm-hmm. During the campaign, I make a video about it. Money, um, they have to release Alaji Manka, Mudam Sikeram, because of uh, Lua Mune, uh, Nit, uh, Sokotie, mm-hmm. Warren Kotie, more than these hours. Hamga, mm-hmm. so it's not uh, uh, uh so it's not wow puru yaya jamme uh, uh, mude mutie um, um, um, uh, boy then that's mean yaya jamme bankola lua ima bunya I have all this video on my Facebook page you know If, if you go and watch. Man interview na Alababaja 2014 or mm. 13. Mm -hmm. Those days, these videos at Facebook Live wasn't available. Mm -hmm. Radio. Mm I was in Alaska then, I remember fully. Mm-hmm. Ngena mayo UDP nga. Man, I'm a dead UDP. Why legi la UDP. Lolo nga mawakon, jamano UDP. Wow. 2013. Mm-hmm. Ngena mayo UDP nga. ok nga wax ma tuuti si sa jaar jaar UDP ni ngeen daan demee ràlli ni ci feesee waxuloo woon ci Yaya Jammeh jamono jooju baaxam. non ah non xam nga. 2013. Mm, déedéet dama daan waxee na yow doo dee gis. Mhm. suma vidéo yooyu. déedéet man I am just basing on man suma interview si ma wax ak yow. waaw waaw. yow outright da nga ma wax ne doo si wax. déedéet nga ne ñi laa wax loo si boppam. ñoom ñu ngi am seen plateforme yi boppam nañ dem ñu wax. did it I have my video ha, ha, no uh, no no ni rek hani ha hani hold on mm-hmm. luma wah mané mané nte ya jamme nenna mm-hmm. ba ni nga kuja yala aya ko banko ga manya naka uh-huh. i will do it and i uh-huh. am uh, um, uh mm-hmm. and dum fanang since on the uh, since that time in scientema i have been doing i have been posting videos ya jamme ko woku ko banko ka cristiano la bade ko come on i make a video about it that was my first time Pruna cross dung ka tandi christianol la um, i'm in solidarity with them mm-hmm. yalon because there are some hani de yaya jamme la time o yaje la christianol la baade ko mu yala aba gambe high school opposite i laftanun ah, ah, mm-hmm. yaje ni islamic fenko mm-hmm. ni islamic fenko conference a fenko i kana mun na mu yala iba lokam yaya jamme la feka jeleta la feka bildun jeleta mm -hmm. wala problème wata kambana tuman do yajele wala nan ko ibukam foloni wata mo bake maybe wala nan nyin imamoy and dum fintitale nga ko ta nga condemn ko ko eh, we have to respect eh, just like a lot of people si nyima blog nga boka daga fate no i don't friend <laughs> blog nga boka no i don't remember ah? but eh, yo xam nga no no no no no no block ma la dama la delete block ma la de dama la delete ci suma friends yi because xam naa ne yaa nga amee platform you will follow me because you need something from me parce que man maa nekk xale bu yaa ah, eh, rek nekk ca neex la yow di ma folo neex la neexu la di ma folo bu la ko ma la dama la delete ma add somebody <laughs> loolu moo tax ah. waa dilitu ma la ah, ah waaye waaye ma la waaw moom ak ñi maa dilit ak ñi maa follow yëpp ni mu ko waxee mhm. du ma struggle pour gis ko wala gis dara si moom jeex na dangaa dugg rek waaw people will send it to me ah. <laughs> mun naa dugga jeex na oda miin sax su ma ko buggee def pour toppa la jeex na su ma bëggee am dara si yow waaye moom daf ma dilit anyway so moo tax mënumaa gis sa say post but anyway fast forward Ah, yaa ngi ko gis ba tey de yow ah. you talked about Yaya Jammeh mm-hmm. mm-hmm. waaye man interview naa la baaba jee ngeen ne ma ne yow xani uh, uh, uh, nit ñi in fact man interview naa la ba pare wax nga ko sa own platform mm. ngeen ne ñi laa nekk di la wax ne nga wax ci Yaya Jammeh déedéet déedéet ma ne mm-hmm. mooy ka fa nga Yaya Jammeh nden te man ta Yaya Jammeh nden loolu laa wax waxuma ñoo xam ne ñu ne ma wax de because dafa am ñoo xam ne dañu ma daan puus ñu nu ma ne bu ko diyaamu gambe la poole mm-hmm. baak mu bëgg al lefta ngaa fa ñaari ñoom lu ñu bëggoon moo nekka struggle bi ñoom roxi ña ñoom loolu ñang mais nga mu seetaan oh. mu ne daan wax si yaa jame ñoom niñ woon ñoom loolu ñang ma ne ñoo daan toppa toppa wax fa nga wax si fa lii laa mm-hmm. bëgga mm-hmm. pour nga xam man time boobu uh-huh. Uh-huh. ma ne uh-huh. man duma saaga yaayaa jame demanta yaayaa jame ne because dafa am ñoo xam ne dañ ma dee toppa pour man ma ah, ah, ma saaga Yaya Jammeh mel ni ñoom nuñ ko daan defee mhm. man loolu laa wax man ma ne man man du ma saaga Yaya Jammeh waaye Yaya Jammeh su defee lu bon mhm. dinaa ko wax su tëjee ñoo xam ne tëj na ne on constitutionnel loolu laa wax te te ah, tamit bi yaaya Jammeh nekkee foofu loolu laa doon def mhm. waaye ma ne <laughs> la fakata gambé nga ci cunuta nga djé la fakata gambé nga benne cuno domo djé ah. way pour tok fi ah. di wone ya djé mba bané na dakale de ah. mané man douma mhm. mhm. mhm. ko def loolu mu ta baro sax bi a bring baro si dafa bi musuma saga président baro té douma ko saga way baro lo xamné def nako lo xamné a war ko def lolou suma constitutional right la pour guen wax ci dara Uh, you know, uh, ah you. Uh, my platform be tung tunga. Uh, no, I'm a Like, you know, money. Man, I don't support the Yaya Jamme or Demba or party. Man, I'm a dead UP, uh, UDP supporter. Hamga. Uh -huh. No, I'm a hold on. But in terms of Gambia, man, I don't hate Yaya Jamme in person. Sudefe lubah uh, nakodev, nakowa. Sudefe lubon Nakoa? That is my, uh, you know, uh, uh, man platform plateforme bi tul tutul la loolu bari they see me as a very controversial person ñu teg me ok me I'm supporting Yaya jamme because duma makodi this or I'm supporting law ah because uh, duma dee wa bu bari about lawyer but I talk about my mind if I see something that's happening in the Gambia lo hamne you know um, that's my concern I'm here for people you know and you know and then that's me you know Why pour toog fii you know people are saying you, you don't diss Yajam. Why am I going to diss Yajam? Yajam is a president. And you know, <laughs> dafde bouton o londi nidi so way mu londi sa bouton bi <laughs> man kenn du londi sama bouton yaa do dafa londi bouton are you a Yajam supporter <laughs> or I mean you are not a Yajam supporter me to be honest um, with you I don't support nobody I don't support nobody. You know, if Yaya Jame do good, I will support Yaya Jame one million percent. If Yaya Jame do bad, I will advise Yaya Jame and tell him, hey, Mr. President, I think this is wrong. We have to do this in this way, you know. So, you know, man lo lade why pour tok fine di wax ya jame da nga bon ya jame da nga del you know man duma ko def kenn du okay now now understand your point of view that you know you are a UDP supporter. You you used to be a UDP supporter, mm -hmm. but in recent times, in recent times, uh, you don't disagree. Normally, you diss lots of people. You diss even. Uh, Donald Trump, and who might be the next president of the of so well astaghfirullah but, but now mm -hmm. do you support or do you disagree? or do you respect Yajim as a president you know, there's one thing that I want people to understand. I respect Yahya Jammeh as a president. And if I'm uh, if I am going to make a video about Yahya Jammeh, I'm going to talk to Yahya Jammeh like who is talking to a leader, who is talking to a president. There is a difference between a boss and a leader. Donald Trump is a boss and Yahya Jammeh is a president. So if I'm going to talk to a president, I'm going to talk to a president just like Yahya Jammeh is a president. And I'm going to give him that respect as long as he is the president of the Republic of the Gambia. Yes. Okay, what was my other question? Um, in Gambia right now, we are, we are, we are, um, election is just at the corner. And so many people are saying Yajime must go. So many people are saying yes for UDP. Now there's another one called is it GDC? Mm -hmm, GDC. it's, uh, that guy. Mm -hmm. What's your point of view about the fact that the, looking at the Gambian Gambian um, uh, Gambian system, you know, we don't actually have a proper opposition in mm-hmm. place. Mm -hmm. What's your advice or what's your take about the, situation in Gambia? The situation in Gambia now. Do you think we have a we have we have a, we have a, we have a right man to replace Yajim if Yajim have to go? Right now, I think in the Gambia the political history and uh, I'm just speaking. Of, uh, I'm just talking about my mind, speaking my mind right now, I think right now in the Gambia we need a, um, uh, a very good opposition leader that can challenge that can challenge Yaya Jammeh. That is very important because you know right now you know too much of people are just saying okay who is going to replace Yaya Jammeh if Yaya Jammeh is not there anymore. So I think you know all the opposition need to come as one and select one candidate to challenge Yaya Jammeh if they want to remove Yaya Jammeh. Okay, but if they don't do that, I'm very sorry. Yaya Jame is going to win again, and that's going to happen. Yes. Um, interesting times, Baba Jata. You predicted this. This interview I had with you was Balaya Yaya did them. Mm-hmm. Uh, in the first place, mm -hmm. ngene Donald Trump du nekk président Gambia mm-hmm. America mm-hmm. but Donald Trump mujj naa nekk président Ah, loolu de wax la dëgg Why Hamna de ah. léegi-léegi ñu impeach ko waaw so coming to the Gambian side mm-hmm. yes wax nga ne yow doo saaga président mm-hmm. Yaya Jammeh is the president of the Gambia and as long as he is a president you are going to address and talk to him like a president mm-hmm. um, uh, ngene waat ne coalition was the only way out for Gambia nga yow yaay da nga yow yaa xëy rek nekk ca da fooguloo ne Adama Barrow biñ interview bi biñ koo def Adama Barrow nekkagut indi siin de wallahi tay boobu Adama nekkagut ci wallahi de <laughs> moo nekk buur de mooy def lu ko neex. waaw waaw waaw léegi kay. Mhm. nga aw bankoo ka. Mhm. ku bugg a tekki. baro rek. waaw waaye waxoon nga ko doo you predicted jeex na ku bugg a um, pour Gambia mun a dem kanam. Mhm. actually we a jeex na that's what you te am na. jeex na am nañ uh, a coalition right now. Um, let me play the other part of that video rek. ok that's it. moo nekk ne for me. for me, I'm not an opposition. I support the IJM, mm mm-hmm. because and most of these opposition who if they were to if they were to come together, at least there can be changes. Understand? But do you think all these opposition that they are making noise here and there? Do you think that they can make changes? Don't you think IJM is the best person for Gambia right now until, the next five or ten years? Oh no. <laughs> uh, for that, um, uh, can you repeat your last question again? Okay currently all the mm-hmm. opposition you see in Gambia, mm-hmm. they are not united together. Mm-hmm. So many of the governments in Gambia, and that's what they have been calling for this opposition to unite together to form a coalition so that they can have one party to, to against Yajame. But since they couldn't do that, don't you think that it's, it's better for Yajame to be in, in place for the next five or ten years than somebody replacing him now? To be honest um, with you, right now, I think um, the uh, the uh, the opposition need to come uh, to form a very big coalition so that they can uh, they can choose one candidate. But if the opposition refuse, I, uh, the only thing that I can say, let's leave here Ajamedea. Unless and until the opposition let them see their mistake, let them come as one. Because guess what? There is no one party that can remove Yaya Jame. So the opposition need to stop being selfish. Let them come as one. Let them form a very big coalition and I'm one one million percent sure if all the opposition came together as one there is no way gambians are going to vote for the opposition i'm one million percent sure of that if that does not happen guess what i don't give a damn yeah jamaica can stay there as long as he wants because of the opposition are the one that refuse to listen to the gambians because the gambians need coalition that's what we, that is what we the Gambians need. But if the opposition they don't want to put their difference aside, they still want to um, uh, uh, they still you know uh, uh want to say um, I am the majority. Guess what? You see, this kind of thing happened in uh, uh, during the World War. I don't Hitler was killing too much of people, but white, black, you know, everybody came at came as one. They form a coalition. They fight Adolf Hitler. That's why Adolf Hitler, you know, is gone forever. Okay. So if of uh, if the opposition and Gambian people are saying, okay, yeah, the Jame is the worst, we need him to go, we need him to go. Why don't the opposition let them listen to Gambian people? Let them come as one and put their difference aside. Don't say that, okay, because of I am the majority. It's true, the majority carry the vote. Okay, Babaja. Mm mm-hmm. no single party. Mm -hmm. could have no. toppled yeah, out of power. Mm even UDP, no, even UDP, they cannot even remove it. They couldn't. No, they cannot. We have been trying for 22 years, but we cannot do it. So, Alhamdulillah, luma wah, telo lumo am. Uh-huh. When they mm-hmm. came together. When mm -hmm. <laughs> came together, Alhamdulillah, mm-hmm. ñu génné Yaya Jammeh, ñëpp gis nañ kon uh, loolu nyang mu san, dafaragalon, Uh, <laughs> Muhammad Taxi, everyone was uh, ragal. Uh, but me, I'm not ragal. At, at least I did my best. Just scared due to our family members back home, mm -hmm. not for ourselves. Morula means through talk binta diba binta mune. Everyone avoided talking about Yaya. He scared all of us with his so-called secret killers. Watson Gambia used to proudly say they don't speak on politics during Yahya Jame's time, and now 50% of all their contents uh, about uh, Yaya Jame. Loli Mune Baba Ja, you were scared of Babili Mansa. Mune Dangaragaron alaaji manka ñoom lawyer daabo ñoom solo Sanding. Mm-hmm. Tambo bi yëpp Yaya Jame mu fa. and I did my best xam mm-hmm. nga. well for the record the interview we've been called if was during Yaya Jammeh. waaw exactly so so me I did my best. you know waaye ñoom. Mm-hmm. there were people who are telling me. Uh-huh. you you uh, uh, uh, dang dee saga Trump. Uh-huh. doo saga saaga Yaya Jammeh uh-huh. loolu laa leen dee man lende, mm-hmm. Yaya Jammeh buur te Donald Trump du buur. Mhm. this is different that you people need to understand te Adama Barrow tamit toog na ba tey musuma koo saaga. no I I I can relate to what you are saying. waaw because um, just like you said. you are mhm. very right. exactly I was following you 100%. Mhm. and a lot of people who don't follow you 100% well, there might be a time that you talk about something and they don't watch e- it. Exactly. E- e- exactly. One or two because of certain perception because Facebook and social media lula, la. Mhm. nit yi dañ am perception about you as an individual. or about an institution. ñu lebel la about nuru. Yeah. we are actually in the same situation. Mhm. because we sit and people often say Pa Os yéen kañ ngeen fee politics. Mhm. this interview I had with you was time Yaya Jame. Exactly. We are freely talking about eh, Yaya Jame uh, eh, and what is happening. Exactly. And after this, of course, you did go to the Gambia. Exactly. And a, a lot of things. Mm -hmm. Man, I, I was having a lot of interviews. I was doing a lot of things. Mm -hmm. It's true that we did not specialize in politics, and until this day, we didn't. Mm -hmm. We don't. I have people, in nga xam ne ñooy Gambian musicians yi seen bopp li ñoo wéy is politics. Mm-hmm very few ñoo daan nangoo wax lii Killa Ace moo ko fa def. Mhm. in fact ñu bari si ñoom dañ ko condemn ñu bari si ñoom dañ ko dis. ya ñu ne waaw ñu ne ñoom ñëpp ñu ngi def songs about it. exactly am am Big Faa mu ngi nii the same thing Gambia woo the same thing. Mhm. ñoom ñëpp ku si nekk si ñoom yaa ngi génnee songs that is dissing the system. Mhm. post Yaya jamme. and of course that is what it was. ñun partly some of the issue we had with the struggle is because they are so passionate about Yaya jamme ñun until this day we will post what is pro government and to fake ne need nako, and of course su fekkee ne am na fu ñu government bi ñu def ko. whereas dafa am some institution yoo ok all they specialize is génne Yaya am proud of myself because I do my best time bu Yaya Jammeh nekk I do my best mm-hmm. baro tamit mu ngi am doing my best mm-hmm. so I don't care people what they because I know some people no hamne. Mm-hmm. Many no ni noo they were not following me that much they were saying though they were affaire Yaya Jammeh yow ka musuloo wax affaire dara xam nga but I know they were not following me that much but people who were following me every day xam nañ me I did my part yes for the record ñun for example Mm -hmm. I can tell you now that there are a lot of people ñoo xam ne um, uh, they are New ones who struggle them dem nañ ñu jooj ñu mm-hmm. dem nañ ñu lebel ñu mm-hmm. di wax ok Gambian Talent doing their nango participate or def anything mm-hmm. because gars yi dañ daan press conference and for the record ñun we have structured shoes for how nga time boobu soo saagul you are not in the struggle loolu moo tax to Celeb Avenue to mm-hmm. lu tax Gambia du dem to xew-xewi jamano, to tête à tête to manyanta. we have like over 15 shows mm-hmm. structured shows on a daily basis so struggle bi suñ amaan press conference Baba Jah fekka ñun ñu ngi am sentiments they want us pour ñu bàyyi suñ sentiments pour dem join and press conference Who? Manalen send me the audio later we play it ñu did it ñu dem binda comme niñ ko dee defee rek binda rek ne ok well Gambian Talents duñ dee wax politics ay salaawut lañ dee a ah, pro Yaya Jammeh balaa seen xol yi di dog nag ma dugal dara about Momodou sabali wala Savage Savage Savage démb rek maa ngi dugal something on mom. Ah, but this is what was happening though uh, a lot of people were stigmatized Demba Balde I am glad to see that léegi yow yaa ñu àtte that year exactly yaa ñu àtte waa tey alhamdulilah dafa ñëw waaw dafa ñëw si <laughs> July 4 bi mm-hmm. téye seen t-shirt ñun ñu ngee def entertainment ak mm-hmm. social di interview Gambian si about di Demba ñëw téye t-shirt am uh, protest t-shirt mm-hmm. ne foog ñu interview ko mu wax moom si Yaya Jammeh ak lim mu a wax ñu seen loolu GRTS pour ñu play ko di ma attaque si kanam nit yi. exactly yow yaa ñu doon àtte at boobu noonu. exactly exactly I was going through this. was our difference at the mm-hmm. time. Mm-hmm. Ah, bu yàggu rek la jógee Màkka dem naa visit ko dañ dee we are doing a lot of things now so Yaya Jammeh definitely was the dividing factor he did a lot loo xam ne dafa divide on Gambians yi. Mm-hmm. and that actually alhamdulilah nañu ngi move on but moving on Baba Jah si Yaya Jammeh. full time. almost every show on Gambia time boobu most of the time yéen ay nga def vidéo yu nasty mhm. di wax ak jigéen ñi mhm. wala nga def vidéo yu nasty mhm. di wax ak góor ñi wala di wax affaire yi ku am awra yu ndaw ak yu bari you could not be censored nit ñu ne Baba Jah saaga ndey dafa toog di saaga dafa toog di wax ay cëri góor ak cëri jigéen and was just saying it as it is people thought you were too explicit like danga roo trop Baba Jah ñu ne da nga ñàkk a yar da nga ñàkk a teggin. Mhm. ñeneen ñi ñu ne that is not Gambian that is mhm. sa reaction. I have you changed that tone that you used to. Uh, I uh, mhm. xam nga man. what people need to understand man musuma saaga kenn. man am doing my show. te uh, show boo xam ne boobu laa doon def affaire yi late night show affaire affaire sëy man am naa ay taalibe ñoo xam ne they are going through. those kind of issues you know since seen si seen marriage bi seen affaire seen sexual life bi dafa boring mm-hmm. they need help they need people to talk to Hamga, that's why I bring that show and I'm still doing it why people mm-hmm. how they want is for me to say taat xam nga so waxee taat ñu they cannot understand because taat mm-hmm. you know uh, you know uh, most of the people do they understand so limota man sere capa jo man suma ñewé capa la de wax nga balal man nak xam nga Wow man man non la ko de waxé man am straight shooter wax ne ni ni lañ ko defé sali ni nga ko defé xam nga because it's something that you know dafa am ñoo xam ñu say and it's disturbing them xam mhm. nga so they need somebody to talk to that's why i bring that show and today alhamdulillah dafa am ñu bari you know they are going through this kind of stuff in their eh, in their life mm they contact me. Uh -huh. Mamam you know. Mm-hmm. um, there was a lady I talked to on on on on Sunday, mm-hmm. Balama Def Sumasobi. Mm-hmm. Jigen bi call ma. mu mane man suma sexual life is boring. mu ma everything lo hamne. that's what she's going through advice bo hamne ne laa am. ma wax ko xam nga suma induton or oh, ah, ah, affaire wax yooyu and those so. or um, you know um all, these things will not go uh, happen hunger mm -hmm. why people are uh gigs, um, mm-hmm. those video today mm -hmm. if i talk about if i talk about them 98 mm-hmm. percent lawa 98 percent of the people mm-hmm. all of them lunma wa Monica, thank you for bringing this thank you for talking about this jërëjëf because me I'm going through this maa ngi you know that's why I'm not going to stop about this so and the way I'm doing it I'm going to talk about that way but if you don't want to listen I'm very sorry. You can go and watch other videos. But as long as I'm on my show, I'm going to I'm, I'm not going to change my tone because demo puru hamga before ustazi then then uh, what Ah, nit yi baale njaalo baale njaalo waaye nit yi xamuñu lan moo nekk njaalo so man su ma ñëwee dama de wax baale nukante man dama de dem straight man dama de wa njaalo de because ustaas yi wax ne al jéenoo bula al jéenoo bula waa nit yi xamuñu lan moo nekk jéenoo waaye man su ma ñëwee nga fa la al ñoko dee bula xam nga so mi I go straight so lii moo tax some people are saying tapacule mhm. daf dee saaga daf dee lii déedéet mhm. man musuma saaga de mhm. I'm doing my show and on that loolu moo tax bés boobu ma wax ma waxee ko noonu waaye su nekkul loolu façon wax yooyu duma ko wax waaye gis naa dama am platform majority of the people are contacting me and I know this thing is happening to a lot of people so at the end of the day they need my help so the best thing that I can do moo nekk to come out and they xam nga wax ko ah you know Baba Jah doogu ma sax ah, yéen a ngi di déglu face à face mm-hmm. Pa Ousmane Diouf jàkkaarloog Serigne Thiapathioly xale bu xëy rek nekk sa xam lépp man lépp di wax lépp ah, dama daan def sentiments yu man ak Jallow Jerry and we did talk about the same thing we were not censors of course this program man ñun one thing with us every program ak lim soxla lu lañ koo jox um, when we did sentiments this is the same way we came I agree with you 100% ne ñun this culture of silence ak nopal noppal te guess what gis na ñi wax loolu ñu bari na when I did sentiments ak jàllo jiri ay I ay imam religious people dañoo talk di ñu déglu and I can also tell you ne ñun tamit we change a lot of lives because issues in that discourse daf ñu affect ci suñ biir kër yi <laughs> a lot of women a lot of men dañoo waxtaanee issue ma pare nit kool ma ne ma yow xanaa dafa am ku leen jox suma story there you go yow sa boppa nga xam yeah people will call me mm-hmm. and oh call Jallow ne xanaa yéen dafa am ku leen jox suma story mm-hmm. because these are the issues yoo xam ne ñun dañ ko dee bëgg a nëppa nëppal dañ dee bëgg di I mean am am put things under the sweep things under the rock under the carpet wala ñu pare di joojante te ñi ko wax ñu bari nag bañuñ ko de si suuf ci ah. pet dinañ dem seetaan ko ñun dañ daan am sentiments ma toog gis suñ saaba bi fees biñ commencé di ko def bu Facebook live bi dooree ñu commencé di ko def ñu bari si ñoom duñ nangoo seetaan dañoo dem baag doo na amin ñu def ko si radio bi bi ma commencé def lii di ah, wàññi radio bi moo because we wanted the screen a lot of people were kind of complaining because they wanted to go behind the scene seetaan ko wala suñ nekkee live duñ ko seetaan dañoo bàyyi bañ dem off because ku soo nekkee on kuy seetaan di nga ko gis they waited until you finish then ñu door a dugga pour seetaan the I agree a lot. I did this so You need to uh, be able to man, use the word. Man, I did this so this last Sunday. Mm -hmm. On that day, I have almost thousand people in Yomadon watch live. Mm -hmm. Okay. Thousand people. Mm-hmm. Time buma pare suma video bi. Uh, live on Facebook, My mm-hmm. post. My post pare. Ma gis on that day almost uh, ah, uh, ah, 30,000 views la am. Uh -huh. By the time I finish your wow. My video. Ma pare. Exactly. Time I hold that video, tay maa ngi am almost foog naa thirty seven xam nga thirty nine thousand mhm. xam nga YouTube tamit the same thing mhm. dama pare post ko YouTube so the same thing is lo man noonu laa ko dee defee mhm. te gis nga lii moo tax man suma Facebook messenger bi dama ko dee ah, lifin activate all the time I have too many messages my brother thank you jërëjëf yàlla na yàlla fee bro ok people call me with different kind of advice waaye gis nga on ah, on Sunday many people call Many people we are calling, they were saying, okay, this is what we have to do in this Mandama technique. We, we you know, uh, so at the end of the day, people are, you know, uh, you can't mail and hell. Okay, this thing is happening in the marriage. Okay, this thing is good. You know, uh, um, if I say this is what is happening, that does not mean it's happening with me. mm But it's happening to people. But those people, they see that I had a platform. So at the end of the day, they want to come to me so that I can talk about it. Hamga. Li, uh, uh, hamga. yeneen saa yi dangaa ñàkk jom pour some information aaga fu mu war a aaga parce que soo ñàkkul jom information yooyu du aaga Baba Jah lii bokk na si lu tax suñu dëkk bi demut kanam moo tax pour tënka rek because um, uh, this issue of nëppa nëppal mhm. this culture of silence mhm. wala ku nekka di jaay ne man imaam laa mhm. wala ami sent ku nekku ci bu gudda bi yaa ngi si bu gàtta bi mu nekk dëgg de have people soo ko defut si gannaaw yaa ngi def si kanam for saying these things te fekk liñ laa wax noonu yow nga toog ok di wax ne ok góor da ngaa maral sa jabar wala jigéen da ngaa maral sa jëkkër ànd laa ñu ne la astafurlaa loolu kenn du ko wax nga dégg ñenn ñu ne la man su ma gémmiñ bu bu maa tuddee yàlla du ma ko def te fekk behind the scenes you ngee def worse than that you ngee wax worse than what you are saying yenn sutura yaaka and you are educating people so foofu anyway I I think mooy loolu pata PJ uh, Seydi Kane it's all healthy for our democracy. Everybody could jump in and better our democracy. Uh, but y'all cannot use these interviews to say we did our part. Though Baba just said he wouldn't say anything against Jammeh because he wants to go to Gambia. I did not say I'm not going to say anything against Yaya Mom sa I mm-hmm. make videos mm -hmm. about Yaya Jammeh. Mm -hmm. Tambu Yaya neke. Fufu. foofu. Mm-hmm. Tëj na Lawyer dabu wax naa na Amadou the time you know Ahmad Sane mo uh, ah, Jagaron affair asylum. Mm -hmm. Ah, I make a video about it. But the tone that people like Pata Pigi, the tone that they want uh -huh. is for me to insult Yaya Jame, uh -huh. which I'm not going to do. -huh. And today, Barra is there. Mm -hmm. So so some UDP supporters before they were not sharing my video. Uh-huh. But today, I see some of them, uh-huh. when I talk about Barra they start sharing those videos. Today, me and them, we are friends. But yesterday, uh -huh. if I talk about Baro, these are the people who are insulting me. Uh-huh. Thank God today they shared my video. Uh -huh. Fast, fast fast with Gambia Talent TV. Serigne Thiapathioly Baba Dia mooy suñ xëy rek nekk sax ku bugg a participer mun nga ñoo topp Facebook Gambian Talent Promotion pour seetaan full interview mun ngeen ñoo toppa YouTube Gambian Talent bés bu nekk ma saaga ko wala boog ngeen toppa ñu fele na la si Instagram wala Twitter ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax ah, Ensa John Mende mu ne thanks Gambian Talents for inviting my star my brother I'm proud of you keep ah, ah, ñu dugg ci ndey la gi Baba Dia ngene UDP patapije mu ne du kare please du kare ne du kare man ma ne patapije daf ma block <laughs> yow yaa ma block suñu la block yi nga noppi ma xatane mu déedéet yow leen moo man blocku de waaye yow da ngay man dama la delete waaw patapije yow defante daf ma block yow leen ma neex yow fa fa baba man dama mun defante de dama defante moom dama sax laajal patapije moom ma xam Facebook Messenger baba ja ku la block nga block ko la ilaha illallah nga saaga ko pataat pijo dama ko dee buddi dal yow da nga da nga la ilaha illallah Muhammad rasulullah moom ma xam pataat pijo ama ala kila bar serigne tafa jot atelo lo nka jele fo bodo jot no kamal hani less two weeks ago le na fara fara ko tenki tami tami baro et affaire english ah pataat mu ne ah tafa jot xawma len ak pataapi jëm maa tàkk xam nga naa fexe la waaye pataapi jëm maa ko buruburu bés boobu fat fat mu bulok man ka <coughs> ma ne ko lay yóbbi simila mu koy am bulok la ndaa bi jannet diaspora command center bu ñoo ko waroon ah, pataapi jëm si biir pot eh, afa am bulok naa mu kéeti naa yaa fa wala kéemaat aye ah, ñu daan follow bu ma ah en tout cas bu ko xañinte la ak sentiments la mooy la ilaha illallah waaye léegi ñun daf ñu feral ñun léegi du ñuy seetaan li seetaan duñuy du nko ala fa nko nko afa on block samba behave lan afa ah. on block léegi prédictoon nga ne élection su ñëwee uh-huh. ñu am coalition dinañ win um, président Barrow on ñu toog rek gis ko mu xëy rek nekkate comme ni ma la waxee Barrow xamuñ ko woon dégguñ ko woon gisuñ ko woon ba UDP around October end of uh-huh. October November dinañ ko jël def uh-huh. ko def ko mm, hold on oh, no hara hara hara no no hara uh-huh. ah, ah, say Ahmad Sane was arrested in 2013 waxal pije man mané na dem si suma video in mu seet mm-hmm. if there is no video that I make about Ahmad Sane you know let him come on Facebook and say Baba Jah you lied uh-huh. waaw maa ko ah, Hello. Hello Kola. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ay be nyari. Mbe jang. Ko tante. Tana o Ya on balla le la kan. juma le Musa Juara, uh, Minnesota. Minnesota. Okay. Iya. Yeah. Okay, Musa. Wa programme nya dia tabake. Oh, okay. Thank you very much. Baba Jan take a follow anytime. Okay men fo fo ya la ko to o wato on defa mo bala mo kam mhm. bate nga o witness le mo kap mol mol lapta mo moy pour ay ya jamme len an adu anene make en de kontane bate le andu ilapta ay men fo mo fo say mo jama ka against ka fo ko ama hanyi aman ama hanita ay ku jama fo ya jambe fana tole le the same baro fana ay mu ay ne ma jaya nen ne ma jaya mo fa wonen andu mol ka folo ka folo ala ala on page andi ka nen andu nene ma moy ka fo ja ay video bondi pour ka monen andu nga moy le ko mo ya tenen so ndeka men fa ka abe men kan ay do aya kata hmm. mɔ ah, n'i la fɛ ka kɛ fɛn ti mɔ ja wɔli i b'o bila la dɛ n'i y'olu nɔ ma dɛ i tɛ ni y'olu bɛɛ bɛ kɛra kelen de so n tɛ b'a ɲamara la dɛ a y'a ka taa a bɛ min kan a ti a ka taa inshallah. thank you very much. right. ko kusa t'ale bɛ yɛlɛ a b'a wajan. waaw ma ne waxal pata pije man ma ne 2013 mu dem mu seex ndax man fa nga vidéo bo ne nga kali ala la wo vidéo hani mhm. bi abana facebook na tata na vidéo 2013 aba jela nga vidéo bunde aba da ahmad sane mhm. ka fo yaya jamme mhm. ah, ahmad sane bula ahmad sane mun tan alpha kendolt ndene ahmad sane katanyo la campagne lo konko ye muta ahmad ha sane ya bulota bulala pocho kon afanyi hinyi na mo bukalo ndene ala ne ahmad sane ne Amadou Sane bintal de kono record man interview na babadia 2013 bobo time bobo ma gue def gambian talent show we are it was live on paradise fm in the gambia time bobo there was no videos like this uh, we were only on the gambian talent radio and I think that was uh, uh, uh, important waaye baba ñu dellu si waat rek sa taalibe bi mu ne yow doy defante baba yow defante rek ngay def de pata bi yow dam dee defante dem saf yow dam yow doo koy dool mbukkee tujee de ah? waatoo dool ah. ni ka bur bur la fa poto <laughs> sakondo on yudi pinko wato le kam korindile e kam korindile bilun defana voice message dumalon mbuka kesan dot mbuka ke dumalon hannin pe danga fo ko bulen ne tamp facebook adal fo lolon nem fana ngal ne na hadi le bije na bije na da janjan mhm. waaw it comes with Saga and Babaja. So how does your family see see, see Abukadiye Babaja binga billahi billahi Babaja Babaja Babaja danga sa ya isa papa wala honey, family member. Honey, honey, mo han ken Why? baama nen buka diyees danga tagu ken dinga commencé la wa dem live tagu lol ken so nakala sa guy xamene yo dang yaangi online because you know i don't block my family they still watching me and i always have a issue issue with the nimolian neck nimolian bane na brother kan kolle uh-huh. na brother fele swiss ñu uh-huh. jël uh-huh. call bobu hello kola yo paus yes Seri kan Pata PJ <laughs> palnene santa la patana kanga dem mai ok mai ke ngala de ngala yo ta dongo de ko wai is ok yo nga feral du ngena du mala de ko yo ma sala ndala man wala man wala ngesu ma time call len di di di len du nga ma naka yo da ngali fene ngai fuina ba salo di mala ma is okay, is ok today ha dan dan mo furin di de ha ima ja telefone ga man taw moo Baba ah. man I remember the very the very time that Baba Baba Jah Baba Jah can say this today when he when when that old video was made uh-huh. about South Africa until the comedian actually uh, came up to say something like, go and attack Gambians because of Babaja's video. Wow. And then people, people go attack on the radio. I think that was, I, I, remember one particular day, they even had to call Babaja on Fatu radio, so people were blaming him. Uh-huh. Ask him, man, not just my phone call, man, because you know what? You are a comedian, you can get away with a lot of things. Don't allow anybody to break your spirit. Somebody yeah, Baba, Baba, is going to be honest. He can go and see that man. I called Baba to say, keep on doing what you're doing. Mm. Yeah, mi hejna mun na am but ntema remember. So yo da man issue. No, okay, okay, wait, wait, my enyo, my enyo. Aha. Pause. Aha. Man with all what that was going on. Aha. Uh-huh. And no, I don't think any of you can raise your hands to say anyone mind on Facebook time struggle this area or this area ninye. No, no, no. I was writing my stuff. I was engaging people, even APIC guys. I was never insulting anybody. So, man, I would be stupid to say I'm encouraging Babaja to go and insult Yajami. Mm -hmm. I never did. Your powers, are not even once did I tell you, powers, you guys can go ahead and discuss about politics. I do not care what you guys were doing. Mm-hmm. Not, not, not, not talking about German politics. Mm-hmm. But Bawaja's, Bawaja's issues were, issue was, one minute, <clears throat> uh, he was not going to insult uh, uh, Yahya Jammeh because Yahya German was a president. Uh-huh. But every day he was on social media getting in Trump's pants. Ba, ba, so we mm, talking in Minera, Minera, Trump, Jammeh Mansala was a Trump was not, Trump was not the board. Well, and you said, yeah, I, I can understand. What can you understand about that powers? Well, I saw they close my interview with him three years ago. A time we Trump toga good. Trump talks like a boss. He was in a president. Man, interview now a couple of times. Okay, fit in a cutla. Man, uh-huh. mom, suit, best put Trump neck president. Do saga. Wow. He doesn't cost president. I remember that. Wow. I remember that. Wow, man, mom, best put Trump toge. So, you put Trump toge. Did it? ma fam mba photo kun dog fonyale mat nga iman na bunda konko ni ya waja na muna iman yelin ga baba don't insult and the fitting radio you go ko ba ko rek a na bunda konko ni eh, ni ah, ni siya yet fbi o ko ka re ma na ko mi manye so so so so so na ga be asa ah so powers uh-huh. man my whole my whole thing is this man I don't have a problem who criticizes anybody or who doesn't. Man, if I disagree with anybody, ah. everybody knows that. Uh-huh. I am one person who does not run away from any sort of criticism or anybody. That's Whether right. I get along with you, you say something, I'll, I come over there, say my stuff, and go my way. Uh-huh. Right? Uh-huh. So Babaja, Babaja has this one problem. He's a cool guy, and, and I think I think he's funny. Uh-huh. As a comedian, I think he's cool. Uh-huh. But the Lord, this, this Lord dude is an asshole. <laughs> Why? What makes you label him as uh, such? <clears throat> okay, so this is what it is. Uh-huh. And I, I tell I told Babaja if Babaja wanted to make fun again again uh, before before I go for it, I'm not saying Babaja should not be talking about politicians and whatever whatever. the problem I have with this is this. Uh-huh. Every government has the right to, to, to take part in all our political discourses. That, that that's a given. Uh-huh. But when you have a platform and your intention is to go and educate people, one thing you have to do is to understand issues first before you jump into them. Well, that's a very good point. No, no, yeah, man, I try to do Baba Jah. When I hear Baba Jah say certain things, I say to myself, manager, where did you hear this from? Uh-huh. When you are in public discourse, you want to take a platform. Uh-huh. Then I make sure I understand issues before you even take this platform to want to educate people. Uh-huh. Uh-huh. That's misleading. Uh-huh. I hear about that all the time. You, he, this nigga crazy. Well, he doesn't even follow anything. Pada, Pada. Well, to your defense, well, though, in your defense, I to Baba Jah just suñ last July 4 bii rek am na yu bombshell yu mu wàccee si UDP ma ne ko Baba Jah yéen mooy min toole foo déggee lii mu ne ma suma taalibe yi ñoo ma ko dee wax mu ne taalibe yi so he will not verify he will not rely on <laughs> on his talibes in Europe to give him back boys yi wala ñeneen ñi ñu jox ko information moom ba kay de fo le fo ñu andu ni iko non bari nga wo fuele mane ko mane de mane ko ko ko baba ite kan lo ya ya jame ta mo fana ya fo ko ya ya jame nyine ndi ni na rabi iko ni na rabi ha ngogo ngogo ngogo a bo nga pawos de pawos de ya ay sunya rolki pawos musungolti ala fongo fanga aka predio fenke nyamanden ay mola kodota from the bank ake you cannot go and hold the program media fo mole ko pawos sunya rolki na africa ah e wal fonte de you don't do that when you have a platform like that yalo that a difference between power owning Yaya jammi Yaya jammi president no. of the public office. Uh -huh. About the whole time. I am giving you an example. Hey, I'm giving an example. I don't have no time with Pata PJ. But Niko Yaya jammi like,

going ahead to just. Ah. To present it as. But but, but, but yeah, eh, eh, no powers. Uh -huh. Man, man, I don't, I don't necessarily have a problem with Baba Jah. Man, what I'm trying to tell this man is, mm -hmm. if you have a platform and you're having people to listen to you with any sort of credibility, uh -huh. with all the energy that he has, the community that he put in there, that is fine. Uh -huh. But when you have, when you have, when you have like up to like thousand people listening to you on an important issue of state matter, uh-huh. a co co co co co is not what you go by. Uh-huh. It's simple. Gambia B, most people today, uh, all you got to do is pick up a phone and call, or you pick up a newspaper and read, and these stories are out there. Ah, and there are people every day that have Remember Daniel, why us? Remember Daniel, powers. Ah, this government has a whole bunch of shortcomings. Uh-huh. Yeah, I understand. Uh-huh. Every day we are seeing missteps and you don't even have to make up anything or to say You can always find those. So there's absolutely no reason for anybody to make anything up. Exactly. And that's what I'm saying. The mistake uh, that they make it. Eh, eh. Pata, what's your last word? <laughs> Amanda? Amanda? That was the last word. <laughs> <laughs> anyway, much my last word. Baba Jai is a comedian. Uh-huh. He can go he can go and do his, his his dance with his diapers that he's shit on all the time. He can do all that. That's fine. But when it comes to issues of national interest, uh-huh. sometimes we can subdue our emotions uh-huh. and we talk on issues as they are. Because one thing people Gambians have to understand. Uh-huh. Only because your power was you, are, for example, you hold a, a, ministerial position or a director position in a public servant, uh-huh. that does not qualify for people to drag each other down only because somebody is in a public position. Mm-hmm. There is absolutely nothing wrong with holding somebody accountable with the facts and what is going on. Mm-hmm. Man, that's what my thing is. Yeah, yeah. People can go onto my timelines. My one thing I was doing with Time Jam, I was giving my opinion, mm-hmm. but I refused to break news, mm-hmm. and I was deliberately sitting on GRTS, taking the torture of what Yajam is doing. Because what I wanted to do, I don't, I don't want anybody to say Parapija more reportedly or more announcedly Fega Fega Amut. that simple. It does, not cost you that much. Mm-hmm. Baba Jai can do that too jërëjëf Pada thank you very much. on before I go, before I go, before I go. So let me tell you, you, know, he said I blocked him, right? So let uh-huh. me clear the part. Mm-hmm. put something up about Baba English. Uh-huh. And I say, I say, Nana, why are you blaming this man for for for uh, for, for for speaking English when the problem should have been spelling? Baba Coleman, like Dimasaga def ma saaga saaga saaga mu ne ma mu ne ma you defa ko the reason why defa me follow facebook ne on friend ne because you say something about ya jame ba mani ya jame they say when nga dabo ni hmm. la kodo i'm like nigga when did you become ya jame ya jame's bodyguard no make i wouldn't get friend nigga so musa dima dima saaga dima budo dima dima i mute him on my inbox yes saaga mu ne baba ja was going around like a crazy stuff i'm not blocking you are obsessed with each other yow Baba Jah yow ak afa kana muke da on block dafa mel pada PJ ak Baba Jah a obsessed with it muna buka haji na ka voice mail ki ay duma ata lollo amma alen ke barinde ale anana maket okay muke da ne fa ko ne voice mail ki wow you continue dega ngali pata wa I want to I am we have a responsibility though Baba Jah this na media mashallah you are doing great and ñun at Gambian Talents we are proud of you te foog naa ne xam nga ne I celebrate you we celebrate you all the time I said this to you though. Paus. And and and. Paus. Uh uh-huh. tell you. man nekkuma journalist pour verify. Mm-hmm. man duma verify dara. dara laa du verify. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. man if somebody uh, call me and tell me uh, Demba Barrow. dem na uh, fale naka la dem na fale Dakar. ngeen naka yow nekkuloo journaliste pour vérifier. pour vérifier. Mhm. Yaya Jammeh bi mu nekkee fii. Mhm. fii lañ toog di tuumal mhm. wax nañ ko lu nekka du fi vérifier. déedéet ñun ñëpp a doon wax. déedéet déedéet déedéet di déedéet la loolu loolu yow sa liggéey man duma ko def vérifier. te moom Yaya Jammeh de ah. ñu ngi amee Kola on the line ñu jël Kola boobu hello Kola hello. hello Pa Ousse naa def. jaama Uh, a Tex. ok Tex the US. Tex nuyu nañ la. Uh, jërëjëf maa nee na delloo uh, nuyoo bi. ok lu ma bëgg a dama bëgg a dama bëgg a yaa ngi waaw ma dama bëgg Baba Jah mu na na continue di lu that he is doing very well because comedians have a commitment to mhm. to to society. Mhm. They can you know help receive the society and they can also destroy the society. Yes, exactly. but one thing I want to say to him is that his platform mhm. is huge enough for that he should he's supposed to get people on the ground that should do some little uh, research for him about stuff that he has to talk about. Mm-hmm. Not only waiting for people to tell him, talk about this, talk about this. Mm-hmm. Uh, like if he wants to talk about uh, a current situation in Gambia, mm-hmm. muna yoni talibe am Gambia, you them research about that issue mm-hmm. so that he will be more precise mm-hmm. when he's talking about the thing than talking randomly because people are listening to him. Tomorrow he will sit down, you know, somewhere and then they will tap his shoulders and say, Yes, you've been doing very good yesterday. Mm-hmm. But it will be better when he does it more accurately mm-hmm. than just, you know, being uh, random. Mm-hmm. And also, like uh, with regards to the night, late night show that he's talking about, mm-hmm. I think it is something that Gambians feel shy of talking about, but it's a problem mm-hmm. that is, you know, uh, uh eating their soul. Mm-hmm. And it's good for him to do that. But uh, the advice or the counsel I want to give to him is if you can extend the show to a period that is bit longer than the normal period that he does it so that you know at least ñu mun a muñ ba time boobu noonu dafa nekk mag yoo xam ne you know dañ ah, soxla pour déglu lu muy wax mm-hmm. yeah Thank you very much. Uh-huh. Ah, the last thing I want to is that I enjoyed his dance. He, danced very well. <laughs> Mm -hmm. All right, bye-bye. Uh, Lena rek dina um we had that problem when we did sentiments uh Magialo because the thing is you have a diverse people watching set of people watching you. Right now for example New New Year's show is very late in Europe and it's weekday. So this video will be watched by a lot of people tomorrow. So you will have a problem of actually Nadaga Kita because what is good in America might be big in Angleterre, might be gone in other places, I mean China and other places. So time difference, you'll have problem i am lenn laa bëgg Baba and this is a very genuine recommendation This media is very powerful mm-hmm. am na ñoo sëriñ càppaaculi rek la mm-hmm. all they want you to tell them is jump all they want to hear is nga like leen how high Do la laaj you tax about my jump or whatsoever dinaa la jox example. last uh, week buñ génn nii two very significant things happen as a result of new programs in def dama def programme last week bele passé last Sunday bele lu tax Gambia du show My interview I people in Bahrain benn waay ji ñoo wax Goodman koo hamne ne Ugandan la muy liggéey ak suñ Gambian brother ku ñoo Lamin Jaiteh and few people nga xam ne ñoom ñooy smogul Gambian si di leen yóbbu Bahrain di leen wax ne su ngeen ñëwee fii di ngeen am liggéey jos si affaire Saudi Arabia issue bi lañ doon wax as we speak Goodman moom Chilokho right now as we speak Goodman is arrested he is under custody because of suu biñ def noonu number two am na yenn vidéo biñ dugal ay jànq yu nekk Gambia ñu def snap vidéo ay xale yu ndaw def snap vidéo di am am fóonante si en bi ñoom ñaar ñu ngi téye seen siisa di ko tux di fóonante dañ pare vidéo boobu dañ ko dugal suñ page bi the next day xale bu jigéen bi kenn ci ñoom papaam daaxa ko këram just to tell you how powerful our institutions are, our platforms are ñu ngi my kola on the line you jël kola hello caller. ok the family ni kola boobu teg na am dama how powerful your medium our medium and other mediums are so it's very important for you to verify information The lower si especially America Ganeka ni daf as a journalist nga wara follow due diligence which is just to find out reach out to the person, to their aid, to their secretary, to their kids, through any mean or mechanism. Just def research to reach out to actually verify. Just to keep it so short, I know. Where Wa tontuna la or tontula lolu mo mo yow lolu du sa problem lolu mo nek dega yow wa lum la wax yow moy limu tam man man man luma def lolu is freedom of speech man I'm not a journalist for me to go and verify okay I had a platform waaye most of the stuff loo xam ne mel ni booy bi nu mu ko way booy bi lu wax ah, lu wax exactly mm-hmm. noonu laa ko dee defee man gis nga tey tey tey tey maa ngi doon wax ak ah, benn booy mm-hmm. mu ne ma ne Serigne Thiapa ma ne ko ne naam mm-hmm. mu ne ma ne UDP Brikama dañ ma daaxa ma ne ko ne lu tax ñu daaxa la me and he we talk mu wax ma everything because we are supporting Barrow, because of that right now, UDP, they knew that have because of the uh, living Bibunyoni, uh, ah, ah, Nakala, living Bunyoni, uh, ah, then you want to pick uh, new living, new living, um, new executive. puru uh, ko xamne moy lead uh, mune UDP you want am living congress mom ak <laughs> ñeneen ñi they want to go and pick Barrow mm-hmm that is the only issue because of Lollenham at the end of the day, they kicked them out of that party. mu but when Barra come from Dakar mm-hmm. ah dangaa mm-hmm. we will go and meet with the president Then mm-hmm. wax the president lu tax UDP and then at the end of the day Munemane Mansa, ma ne I will make sure Bara will form his party if God wills before the end of this year nii na Munemane, ko UDP toj na mu ne UDP kuno ana UDP bi aman kilin mu ne ma ne te soo gisoo UDP muy dem because a président Barrow mu ne ma ne bii yoo bii yoo moo jamaa yoo ah, ah, mooy mënu béje ntol bee ba wëlle kon Baba Jah gis nga li nga wax nii waaw tey soo seetee standard newspaper <laughs> démba right mm-hmm. loolu was headline news ñi UDP daxa mm-hmm. Uh, dañ leen daaxa because of uh, loolu it's mhm. on the standard and the west coast region chairman bi si boppam mhm. confirm na ne ñooñu dañ leen uh, dañ leen daaxa so kañ leen ko binda tey démba démba so mooy li ma laa wax ne la you have to do research, Babaja, mm -hmm. if you want to take what you are doing to the next level. Mm -hmm. Giving facts is very important. Nyom um, uh, uh, Kini, Trevor Noah, mhm. America Fee. These are big comedians. but lépp you are wax fact like koo they are critical of the uh, Trump government. and and they talk fact ñoom uh, Trevor Noah. but they talk facts. and that's exactly what I'm doing Trevor Noah I used to watch his show. yeah but then Trevor Noah soo ko it can be very funny. and that's exactly what I'm doing. I'm just saying they say, and you know, no, and no, you cannot just basically. Did it? Did uh, it? Ele- wow. I can tell you, it's very important because you can touch lives, <laughs> you can change lives. <laughs> it's millions of people that are watching you. Yeah. so lépp looy wax yow da nga make sure it's factual. su la ñu joxee hearsay. Mm-hmm. verify. sometimes you can talk about the issue. So now, how do I have to verify? Do I have to call those people and tell them, hey, uh, is this is true? this is what is there is an allegation against you. non non lii lañ wax what is your reaction to this comme li ma laa laaj. léegi nii rek xam nga maa ngi toog ak yow maa ngi laa wax ne la. ma ne lii ak lii ak lii si yow lan nga am. pour the late night show in America did they call Trump and verify. if they have to they will. they will call his his they will make effort to ne reach ah, out nañ to that side but to no avail or we never. man ak ñooñu nag nekkuñu benn man man nekkuma journaliste. sa ko dama maa Yeah, this one what people to understand. Ah, kon yena ko digal lor baba jamuna du journalist ah, yena digal lu ñu ngi am anoda kola ñu jël kola bobu hello kola. Hello uh, Paul. Wow. Naka. <laughs> Ya, ma rek naka tu da ak fooy koolee. Ah, man maa ngi tudd Boubacar Cissé maa ngi Kansas. Kansas in the US Okay Boubacar. dama dama kool pour ma nuyu suma sëriñ bi sëriñ Capa Cole. <laughs> maa nuyu. <laughs> Labroda Mbekondo na Baba Bake, maa ngi laa nuyu bu baax su man sa sa benn fans la ku nekk Kansas. no ba Baba Jah ay taalibe la am waaw ne ko kenn ci taalibe mi nga. yëpp man ci taalibe mi laa. acca mm, lan nga bëgg a contribute ci show bi. yeah maa ngi leen naa nuyu bu baax you know you guys are doing a very good job. ah thank you. jërëjëf waay. jërëjëf waay appreciate nañ ko. all right bye bye is getting heated um, loolu is just a feedback Patam PJ wax na ko képp kuy call ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant si seen déglu ak seen seetaan bu rafet euh, sëriñ bi lañ toogal càppaacul yi dafa xëy rek nekk sax mhm. ñu dellu si waat ñu ngi doon wax ci baro I mean, and uh, the UDP and, and, and how uh, uh, uh, Barros government for the past two years. You've been talking and making a lot of videos every week. I'm source, ne sa soos yu mel ni Njaay Mandé am nañu caller on the line hello caller hello Binta from Jersey hello hello yes hello caller naka nga tudd ak fooy koolee eh? man Binta Diba tudda New Jersey laa nekk Binta Diba New Jersey Binta nuyu nañ la na ngeen def sant yàlla bu baax a baax lan nga bëgg a contribuer ci show bi Um, I wanted to talk to Babaja. Um, Babaja, I think I understand your point of view. You're um, you're very smart, obviously. Um, like you said, English might not be your strongest point, but you do know how to get people's attention. But what the other guys also saying, and recently Lu Wang said this, he said that he's very talented, but there's certain things that he doesn't do himself. So the research part, you don't have to do yourself because it, it can be time consuming. And there's people like there's young students that they love that just maybe just like the guy that was just talking who is who is a journalist and does things that they do so you don't have to do that you can do the research but you can get people that you hold accountable to do the research i do it myself sometimes like a lot of times i get i get passionate about something and i go ahead and just speak on it online but then there's going to be that one smart person that really knows information on it and they're going to come and embarrass you and it does make you look bad a little bit you know so it, it, it is good to get a journalist or have somebody. You're so big. There's a lot of people that are going to love to work under you just to do research, you know, especially these young people. You. So just use that and then, you know, do your thing. And you don't have to. There's all these people that are like in the front line. They never, like, there's people that work under them. And you are at that stage. Get people to work under you. You don't have to do it yourself. Thank you very much, Binta. Thank you. I really appreciate it. Thank you very much. Yeah, for sure. Uh, Binta Diba comme li wax rek the best form of research When nga contact ndey bi lagi comme lifin pour jox la beneen exemple Ami Bojang Sissoho di uh, press secretary office of the president I contact her every single week almost <laughs> that we are doing our show du jël suma call Why man suma responsibility More just to reach out if there is anything that has to do with the government bugga nañoo hear the side of the government li lañ leen accuse lan mooy seen tontu embassies yi lii lañ leen accuse lan mooy seen tontu whether tontu ngeen or not we just the office of um, vice president lawyer Dabo we call all of them GDC we call them and ma wax bokk ak if you need any of their contacts I will give you their contacts. <laughs> contact them. If, if you want to take it to the if next I level, call them, just for help, are you a journalist now? Just for help sa platform bi ak sa followers <laughs> because lépp loo leen wax gars dañ ko Baba <laughs> anyway you continue. président baro two years Uh, ngi doon predict bi nga jox prediction bi two years ago. Mhm. was Barrow on your mind? Who was on your mind? Big Ajohel, because Yanginon, time of GDC had just been formed, uh, P, uh, PPP Nyung ñoom ñu Nyom F, Nyom S, Nyom Yunekasi coalition, Nyung Fawon. But uh, against Yaya Jamme, Binga Wahlulu, yo, who did you have in mind? Yan parties nga amon in mind, a kanga forgotten, Koko Moy Nekasi, the flag bearer of um, the coalition suñ loolu dëgg la hmm. man ku ma xalaatoon moo nekk OJ because OJ nit la koo xam ne mosuta taxawal you know pour living as a president so man man suma xel bi mu ne. Mhm. ok ah, dañoo Hamad Ba dafa ñëw. Mhm. Ah, lawyer Darboe ñëw. Ah, kii ñëw naka la naka la kii. time boobu lawyer Darboe mu ci loxo. waaw. ni ñoo def that interview Lawyer Darboe was uh, uh, uh, no I'm saying the party uh-huh. Wow! so Lega Halifata tamit the ñu so at the end of the Madam, take. this last caller hello caller hello You are hello caller Powers how are you all right how are you yes what's your name I'm Seku, I'm calling from New York Seku Jame from New York okay Seku, what's your contribution yes what I'm telling Baba Jah is Babaja, he can't even, he stammers, he can't even speak well. So why is he coming to, you know, public domain or media, you know, trying to make false allegations, trying to make comedies? And then he knows that he can't even, he stammers. His, his voice is not even clear or clean. So let him give us break, please. Let him not just be a funny dump like that. We, we don't even enjoy him. He's so annoying. Well, <laughs> Thank you. Uh, one man's food is another man's poison. Uh, caller, a caller, the caller before you uh, said, "Nemom titaliwe baba jaila mum lai noye." But I think um, that's discriminatory, though. <laughs> uh, just because he's Thomas and the like, definitely is not a good enough reason UDP to actually <laughs> judge him. Eh, why UDP? Why? ñu continuer rek ba tey eh, loolu mooy sa xalaat fa la sa xel toll. ñoom la di baba ja kola boobu interop bi mu hello kola hello kola hello hello kola kola dafa mel ni kola boobu nekkul di ñu I will uh, stop taking the calls uh, mashallah so baba ja yaa ngi doon wax ngeen ne am um, OJ euh, nga expect on yow. Mhm. pour nekk am the coalition li. xoolal caméra bi Baba Jah man man time boobu. Mhm. lu ma doon xalaat moo nekk. Mhm. mane ok xëy na OJ. musta taxaw. si pa pro président ma ok. xëy na ñoom dañoo waxam ok ah fekk Halifa dafa wax man mus naa taxaw pour ut ok mus naa taxaw ok kon léegi nañ nañ ñëw ah. ñu ah, ñu indi OJ xam nga ma loolu laa tegoon xëy ah. xam nga so waaye I was not sure eh? ne mm-hmm. dinañ ah, select o kii o o Hamad Bah o mm-hmm. kii o Dabo xam nga so waaye gis nga lu. lan moo taxoon nga predict OJ why did you want OJ lan moo taxoon nga predict OJ because OJ musuta taxaw as a presidential candidate loolu moo masuma helbi suma xel bi la demoon. élection yu passé yu PPP taxaw yëpp OJ moo nekkoon nda PPP di bi ñoo foom naat ak political parties yooyu yëpp. ma ne hmm? waaye as a presidential candidate. ah déedéet bi ñoo taxawal PPP noonu anyway. moom moo nekkoon di leader. <laughs> Ah. waaye taxawut. ok moo so loolu moo taxoon nga bëgg pour moom mu lii. non non ah loolu laa foogoon man xëy na that is what they will say ah xëy na den den ah Hamad dafa wax ne man hat ah, hat hat taxaw naa fa all these years mënuma koo génne ko léegi xaaral kon you know ah, ah man ma toog si si gannaaw pour. Ah, ah ñu try man nga déggee ñu announce Barrow nga gis Barrow first <laughs> si convention bi. Mhm. what what what what came to bés boobu Ibrahima Diba laa njëkk a call. Ah. mala ko de Ibrahima Diba. Ah. a fo baro ka taa jimoto ni wonte ni ba mul bayin dole ba fulo buda kono fudo jibe ba Diba call straight bés boobu Mohamed Ibrahima Diba mooy maa ngi ko doon interview amin si affaire Saudi Arabia suma nit la de mhm. gis nga UDP tey mhm. a Diba lu mu fa am mhm. war na am lu raw loolu Ibrahima Diba ah macha lu mu mun a looyee daal man de mun na lu ma ko man loo ah, man laa wax. Mm-hmm. man xam naa ne tey tey tey tey so waaw xam nga mm-hmm. waaye mm-hmm. after loolu at the end of the gis affaire bi ne baro leen taxawal te coalition am na te man ma ne coalition su amee ñoom laay farleel ma farleel baro jagar naa vidéo ma ne ah, waa Gambien le ning ah, loolu naa wax si Yaya Jammeh ne reykat la daf dee tëjkat lii laa wax vidéo bi and if people don't trust me let them go during that time let them watch that video what I said if if you guys are saying Yaya is a killer He's a murderer and he's killing people and he's eh, and he's insulting people don't vote for him go and vote for Barrow Mane Gambian and me, I endorse Barrow, and I call all Gambians to go and vote for Barrow. That video is still on my uh, on my Facebook wall. If you don't <laughs> believe me, go and check my video during those time. You will see that video there, and that's what I said. Okay. Legi ngawa wax loolu ne votal Barrow. waaye legi Baba Jah every day i baakan. mbaakan every day yanti ngi ci barole le comme li ñoo wax ni doy verify information yaa ngi koo yekkal left and right yaa ngi accuse of all kinds of things from money laundering lu nekk issue bu xew ci ñuy njëkka a génn pour wax ci ngay bokka ma ne te du yére xani de para ba kan ne ko problème nga am ak baro all of a lekkuma si soo suñ la joxoon nga maxata ne muun Abandon Babaja Baba Janga Makatane Mut. Are you just saying this though as a comedian or are you serious? Ah, If you are giving money, yeah, jame yore nan wax yore nan def jangi de gan nokoy ñaay mu ngi wax ne daf doon wax ne daf ko soxla so su la defo do du Su la baro oyo legi jox la xaalis di nga noppi. Duk. Do waxaat dara ci mom. Ke <laughs> babu ke non kesse gekko. Femal lu ndakol. So kon will you agree with me ne okay um, yow li nga def kon dang ko def pour attention pour pour am lolu from Barrow. Ah, I'm just being a pain in <laughs> But are you serious though? I'm asking you. I'm serious with the question. No, I'm not serious. Su la Barrow ooyoon jox la xaalis. Mm. man mm. bañ a wax. Eh, am the voice of. waaye ah. di nga jël xaalis. man. <laughs> mbaa man toole wulu ko. <laughs> kon da bay tol loolu ba ko la ko waaye di nga continuer di wax da ngaa jël seen xaalis ba pare continuer eh, fopoo doo ñu leen say ndey waaw waaw <laughs> kii mooy Baba Jah billaay fii face à face rek ko mën a amee si Gambian Talents TV <laughs> dama day rek nekk ca macha allah ngeen ko kon ok nga commencé di wax ci baro Baba Jah mhm. di wax ci baro UDP nga njëkkee doo mhm. so do you believe there is baro UDP camp ak UDP Dabo camp or is there just one UDP? They, uh, uh, now there's two UDP Barrow am na camp. Mm-hmm. Lawyer Dabo am na camp. Uh-huh. waaw. Uh-huh. léegi moom. Uh-huh. majority of the UDP supporters. Mm-hmm. ñoo xam ne dañu amee carte. ñoom ñëpp si Barrow lañ nekk. bojo bojo ñu nekk fii. Mm-hmm. maa ñoom pata pii ah? ñoom ñoo ne ah ñoom ñoo ne UDP Dabo. ñi am karta eh, ñi am ñu ma karta wuli ñinta ma wuli ñintangol fode ñoom wuli ñinta ñoom pata piiji eh. waxuma ñoo a ah, wuli ñintangol eh. leñ waa ñu nekk Gambia carte ti ñoom waaye léegi tey ñu franchise ñëw ñun ñu nekk ci diaspora bi ñu commencé am carte pour mën a waaw waaw so let leen gisee ay kamɓe allon haare yi hana gisugo paye a allon haare mom muɗum idi paye sara huley yimgel kola vidi hello kola hello kola eyyi paos ok bara bara bara bara ngeen close i'm i'm a contribute just a couple of things in here uh -huh. Do I have? Do I, can I go ahead? Yes, go ahead. I give you two minutes. Okay. Papa. First, okay. First, I want to I want to go back to a couple of things like uh uh Nagara Bawa just said about uh uh, people, some somebody from some people from Brikama or West Coast new knew him guy in Tahasupativi. It was not. They did not expect anybody from the party. They did not uh, uh, send anybody. It was a congress of regional levels, mm-hmm. or in wards and, and, and, and constituencies that people lost. So those people they were not sent from the party, unless they want to resign from the party. But only because you lose a seat does not mean that you are out of the party. That's just like, hey, if somebody challenges Hussein Dabo for a Secretary General position, Cook win. Mm -hmm. Parliament, it was it was at a Congress, it was an election, it wasn't like anybody was senator. So I want to clear that part. Mm -hmm. Now, Benin Palbimine, he was thinking that uh, OJ could have contested to be. Uh, OJ was OJ is already on Useno. So even Useno was not in jail, Useno could not have contested because Useno was older than 65. Limit, so OJ2 uh -huh. could not have contested. Yeah, the age limit, uh-huh. Well, mom opinion, yeah, so, out, out of the presidential candidate, wala nyifa nekon, no. OJ lako age, wow. fogon na suga edefon um, coalition, OJ mom mom la bugon pour mo, mom la fogon ne moy, moy, wow, wow, wow, wow, wow, wow, the family, the family, man la, man, man, you know what, man, I want, I want, uh, negative as, uh, uh, Yankuba Kole to, to lead the coalition. Seka Mumbokot. That was not going to make any sense. But that's, that's just by the way. now, eh, eh, they, to, the, to the main reason that I called, uh-huh. one minute, one minute UDP had two camps. Uh-huh. Mana, I, I, I, and I just answered this on somebody's uh, post today. Mana, then, the issue is anybody who look at what is happening in the US U, uh, UDP, the people that are supporters, the supporters actually, mm-hmm. will be the ones to think that there are two camps within the UDP. But UDP as a party, the standards are very clear. The procedure is very clear. UDP-NUIAM, like a, a, a, a, a constitution that shows who should be a part, who, who can be a party leader, who can be a flag bearer, and all those kind of things. The constitution is very clear on that. you can you can invite me and I'll come over there. What, but what I'm saying is we don't have two camps in there. I don't want Barrow resign from the UDP. nga uyu ma. UDP amuñ ñaari kam baax na xaaral. <laughs> man dinaa ñëw dinaa la contact after ñu schedule ma call ma invite ma <laughs> I have UDP <laughs> amuñ ñaari kam. la. am na campi baro. anna kampi daaɓo ñimmo ñimmolu munala e wolle bondi ntelaga foyde maala wennon ñimmole munu baytaga juɓede a juɓet ye bayle because wolba nun ka campagnole ke bare pour ye barole tambindi mhm. ntema sukuru bule da konat mhm. ñom ñoma o because nga momul lonje mhm. wolon te commande ya ñu quota be fanya an fana o fanan biri ya tombo UDP fo bi watini watini naka diamul wala ñu ngi ko daa foña ko ñoko ba baro na bude senegal nim baro ba ñoo jël ma ñu kuma kan fola baro yi baro ya lon ne what is going on mm-hmm. yaa jël bi ya ah, mm-hmm. ah nga fii Sidi Ndiaye mm-hmm. Sidi Ndiaye moo gën a close baro dan looya daabo maa la ko wax Sidi Ndiaye ngo ngo last week ah, ah, three weeks ago ah uh-huh. three weeks ago uh-huh. yow yaa wax lii mbaaku maa wax lii <laughs> three weeks ago APRC ah. kolla fenko ila député ten mun yalo nene lol lotanu APRC wolle naate din sidin jasite kaccata sidin jasa ka baro FaceTime lako ah. FaceTime sidin jaka kede député le si ngata di baro lako baro fele waxna ak ñoom hey niaje ñin uh, ah, ñin fenke ba aton din uh, uh-huh. ñin ah, eme ba uh -huh. atata udp -huh. eme ba atata udp nka nka fenkele de mm-hmm. udp baro atata woldat oh, sidi njay la mo dedet hani de hani de he went to see dabo hey. the next day la kairot mm -hmm. baro tambit baro tambit niaje eme ba ñol nata uh-huh. ah -huh. sidi njay la gis nga Sidi Ndiaye mi atel tada ni be nya nyu nya mobilize sun ko bi Sidi Ndiaye na ba suti yarin barula hatambi fengel So are you saying Dabol. Sidi Njai is becoming something? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ama jama furu do bangunga. Sidi Njai. Aha. Nkar ani dusano. Ni mo dama furu do bangunga. daa Sarr ni mu alama ka di kan fan la a Barrow supporter not ne di nga ko wax not political Barrow la political adviser not not official government level not adviser or anything Barrow la political adviser lon ko du sano mm-hmm. moom ko moom yaa mota kuta kuto la diyana nakata doo koon i ko mota kuta kuto pelle ko jox léegi Sidi Ndiaye Sidi Ndiaye ah, a Sidi sidiamo ikosa um, eh, e fenkol jala atonde hmm, kerelanso natnata bo karranga ah, a nga ataka dunne borya soto goto bar loyade abo karane koma bundala fo aytan secrétaire ñañoƴ seetaan naa sa benn vidéo ngeen juróomi UDP members lañ revoke seen clearance. waaw at mi wolla udp kolti mun yaalo e kata kata hofo fengele gar walle hani ndendi a me a ha dede ñooñu waxuñma seen tur yi mhm. waaye ñoom five la ñoo xam ne mhm. dañu revoke seen crédence parce que ñu ne den dee dem ñuy gaar waale ñoom kii Duusaano mhm. ak ñoom Sidi Ndiaye because of affaire yi ah, ah, bara youth movement ak UDP loolu moo tax ñu revoke seen crédence bi suma taalibe ñu ne nga house ñu ma ko wax li motax mané man xibar bu weex la dé am li motax ñu ñu ba waxa da nga vérifier lan la vérifier talibé ñu fa nek ñoo ma dee wax nak la vérifier Serigne Ndiaye sax xëy na mu nek suma talibé ay na Serigne Ndiaye sax mu ma wax ay na Doudou Sané sax mu wax waaw waaw man li ma wax moy am ko ya. looyee daa ba saana la ah, kal a ka ñinje ya. aka rang fay dem rang tojut fen to man fen la tojut ah, fi da bar mo fi toj yéen a ko déggandoor ku koy Serigne Thiapathioly Baba Dia rek nekk ca Ah, dégg ngeen li nga xam ne moom la wax mu ne UDP ñaari camp lañ am si jamono ji Baba Jah mu ne UDP ñaari camp lañ am Barrow UDP ak Lawyer Darboe UDP ah, seetaan naa sa vidéo nga ne Barrow dafa dem ah, America Lawyer Darboe announce food insecurity Barrow ñëw teggi ko waaw waaw woyaatandi la ko there is something going on xam bi yàlla kii ba xam nga ñaari mag Lawyer Darboe dafa announce ne dañ am food insecurity mm-hmm. ci dëkk bi fekk Barrow ngeen dem America ci UN conference bi mhm. Barrow ñëw teggi loolu waaw ngeene um, naka Lawyer ah, Darboe follow la kaalaw teachers yi waaw teachers yi tamit demonstrate waaw Lawyer Darboe jox leen ultimatum ne di 29 of September 28 mhm. mhm. suñ delluwut ci classe yi ñoom ñëpp ñu fire leen replace leen with all teachers Barrow ñoo négocier ak ñoom jeex na so so ah loolu war naa laa wane there something between these two people gis nga mag ñaari mag suñu amee problème baro baro tamit mu ne politicien bi akhira team bi mooy ñu ñëwoon blood bag bi ah, ah, mu ne politicien no le ba ñu ko kuma an fe le fe kaman siale ha isuru dal ñu banku nga andu fele ba lan te mu ne ngale no fama do ita kelo mo kilo ki mo le ka problème de pa bi la gis nga du baro de <laughs> gis nga lawyer dabo su ñëwoon lawyer dabo ya tandi baro la ko hey three years bo la ke ya bugos ini ñi mo jaamu ta wala hmm. ning lawyer dabo yo ta dundinu baro tulo ko nono tandu ɗum mbi ñim bata ɓe datata kon wa loyera ɓe moƴo di traité nit yi diñu wana ni momo ko ɓaraña three years mbiye sambala koto dimala defini ba pa pa pa hade ɓi imaja jurmate kuuga so so in other words dafa backfire on him wow alon moko joddi ñowe e eh, si um, you think uh, Roy Dabo had influence on Of course, money. Bare bunya bele di loja Dabo la. Well, because those things been talking is both in Gambia ak <laughs> outside of Gambia <laughs> suñ amee interviews wala suñoo am platforms including even bi gars dem seen ECOWAS tour bi um, Lawyer Darboe always Barrow always call Lawyer Darboe ne mooy godfather <laughs> and Lawyer always call Barrow Moses ki ñu save from Pharaoh tey ki ñu yóbbu ki ñu yóbbu si promised land bi Moses la ko daan ooyee léegi déggatuñ Barrow ooyeeti ko godfather because baro bu nya bele di loya da bola wa loya or ngo ah hey yaje le bi udp ko katambi baro la mhm. tay ganjune waw nimbita congress la danko ha baro resign tele abita apply ku baro nana as first script kana muna hani mo kun tayri nyama botala What on earth no The Barrow dafa resign. Déedéet hey mu naati naa resign ta. From the party and even at IEC Barrow ngi def. Hani de hani de hani déedéet hold on. Maa wax maa la wax. Waaw even I mean Barrow dafa am pour resign UDP. Lim present to the IEC. Katun ko is manifesto lifen bi la present manifesto coalition. Katun e- exactly because of officially though he's not a member. Eh muna woma tinna. baro ni tapuru kana muru UDP ko de hanide bilmo momo kumaya UDP ko tambi barola barolota UDP le UDP la kambanan ye ye barota ya wafu gambian kolia loolu moo am so léegi why on earth because of ça yaa jële ko baro ba mesop kane fuuta kunun ni UDP ni ko fenkeñ baro duma lekkee attaque But bare bilungo because ya jele ko itolla mira roto barota sakontam tala ya soto wana sa bare ba isolate kan kunung kamba no mu yalong mu yalla ye bayten kuma kila wala fany mhm. akoni ko loya da boko nimbaro fota nimbaro felta UDP le felta so munana bi ban tol bayla because of ntol we were fighting pour baro kamba no nya nyele fany loya da bo been saying that do wahna lulu he used campaign and make rallies and talk about these things mm-hmm. and advocate for all UDP supporters to but Duma. uh -uh. because who um, but then those statements, he, these are statements he made public. Exactly. Both in the Gambia and outside of the Gambia. Mm-hmm. Russia would ko ragale would call daf ko mm-hmm. ne baro baro UDP la abanta ah, bar wonta biiti de hmm? bi jumal de ba nenka bi jumal de ba tanga ala senegal jan jubé birin atare senegal imamwe mm. barako ako bi patiti je mun kanen gambe katambi udp la mm. tayo interview jibe ba mm. baro fanga yaf because bi baro ya halu ko exactly bi ko udp ko leba nengang katambi mobe la musin dingo uh, fele ay nyinta aya bondi ka nyimfo baro aka fa ko ni ko ba udp pidale ba kala nyini ibaye wulu nyame mbole fola just look at this as a president You don't do that. Yakin bilu mo tulli ba a ko bilu na video ko siya bi binu ko barote. Itu la kabe janjan. So yo Man. Nte. Team baro nte ba wolto. Dawda shi nan taranta kan na wolto fanta mo tole. Hai. Dawda shi eh. So yo team baro Nte. bara youtube movement bi jeyna <laughs> ko yaangi wara youtube nte daga daga daga bokk ci wi di bi ci yaro chapter bi dang ngay dem ci ga sen meeting nte man day yo nte ho ci ba ma ko ronj hey dang ngay dem ci ga sen meeting nga han mo sa ba fay e ma si musu kilen fo ke fu e la lomba musu kilen ke fu e oh. nga xam ne football ji moo bay maas yi yéen a ko déggandoor Baba Dia Serigne Thiapathioly xale bu xew si jamono xëy rek nekk sa mu ne moom baro la xewal baro la bokk ah. pati lañ def fi pati jàng a jubee de mm. yee ñu ne ñoom pata pi jël la bi na koy ah, mën si yaa ah, ko kontol kam ñu ne seen fii ñu ne gars ñu ne de ne dañoo ñëw am fii li fin conférence waaye waaye xam nga la la xay def mm-hmm. dañu xaar ba ñu am fi ngénte si élection ngénte boobu ñoo xam ne dañ fi ñëw pour ngénte bi ñooñu leen leen luwaas ñoom pata pige ñooñu leen dem luwaas ñoo bule ñoo waa UDP si yaani capta UDP man ñooñu fan lañ toj hani football team fa alma si ngo igada pa ko to jan mu ne yeje hani football team fa ma si aste bo ki mooy Serigne Thiapathioly xëy rek nekk ca mu ne UDP ñaari camp ñoo am UDP Barrow ak UDP Baba ja. so you right now kan nga foog ne mo gëna a chance. Mm. tey tey tey tey tey billahi walleetal maa wa bi nim barolo ta bi Gambia mm. ani loya da ba moo fulo ndela nga fa barol ba win wa bi baro oye ci fi be wax ak ñom Baba ja abanta abanta nko nko ay jumaale ke minister of ah, ah, mu yàlla aba marala ah, banko la ani ngo local government ala boya wala keje so ala boyo nyin wala jita mara sefo ka tande sefo hey ala nya jele wala na barola diamo imamo de barako sefo ye ko mane la aha baro mun sefi xam len ne tay kepani ko xam ne yaaya jabe mo la fa tegun demba tay suma kadu nga ada ma nekk président bi tay luma wax mooy am luma waxu du fi am mhm. gis nga mhm. mu ne leen ne waaw affaire politique bu leen si waa na fi waa xaaral bi affaire bi jot rek. affaire bi bu jotee. Mhm. i ba seeful be ñu hey. baro bi jeet. Mhm. ala fa allah mula karre fay baro loolu mooy am UDP tam meeting ko kela foy sefol jeje barki demba rek maa ngi post last week a <laughs> mhm. new guy forming an independent candidate la moo taxaw mhm. euh, docteur Amadou Kanté mu ngi ràlli North Carolina fii mooy imaami Gambien community bi gis nga ko tojut fen gis nga ko gis naa ko rafetul sax <laughs> ah kay docteur Kanté ah <laughs> docteur Kanté wala political parties yi dañ bari de Baba Jah next election Gambie dina tànga de. Yaya Jammeh moo leen sori am ñoom Amadou yaa ngi am uh, eh, ko moo ba ti ñaari Yaya Jammeh ko moo ti ñaat. ñu ngi ngembu wa. Eh. waandoo yi ñu ngi eh, suri fol fongol bee daa dund politique ay sire fii wa ah. <laughs> ah? <laughs> allah ko yi bari nañ léegi yow. Ah! am na ku ma waxal démb actually gars yi ñu ngi form a new political party. waa ah, ah, ah. Mhm. Mhm. na ak ñu ne ma ne. Mhm. su UDP demee ba taxawal bari bara we are forming a party bu ñaa bijee maa ñoom ñoo nekk UDP ni diyamutale ye la kota ye ba ye ye a yinade bara kota ya shindintele he make mo furinti gambia de man tey nekkuma nit ku ndaw de loolu moo tax suma taalibee woo ma ma lii is lii and lii lii is what is going on here mm-hmm. ñu wax ko nga dégg loolu ma ma ne leen ma dellu la waaw bi nga commencé di def lii nga dellu Gambia after Barrow how was that reception like nga delloo Gambia how did the people receive you loolu alhamdulilah la you know dem naa people recognize you yaa ngi dem palaat nit yi bu baax am naa celebrity life bi waaw toj naa fu bari Mm. toj naa fu bari waaye you waaye you know um, nu ma ko buggee tojee tojewu ko noonu mm. looya daa boobu moo tax toju ko noonu loolu moo tax paa boobu affaire dara ma neexul affaire dara la ma neexul paa boobu <laughs> tojul fenn lan la ma def lan la looya daa ma def dafa añaan léegi daf ma day daw su ma ko koolee du dee jël suma kool bi waaye démb su ma ko koolee bu jël suma kool bi waaye daf ma day daw de te de ay xarit yu US la am moo ta léegi ma ne bari ah, ah maa ngi fale bari youth movement. so waaw waaw da nga dem Gambia bëgg koo gis ah yow yaa ngi ñëw. déedéet yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw ndanka ndanka. déedéet dama am si moom soxla. looya daa ba soo nanguut laa gis. déedéet dama am si moom soxla. waaw xam nga ministre Gambia soo ko bëggee gis. Mhm. den la day jox application. waaw ñu wax la lu tax nga bëgg ko gis. xam nga. Mhm. man application boobu laa jël ma fiil ko. Mhm. temps bu ma file suma application bi. Mhm. ma ne dama bugg a waxaa Darboe. Mhm. ma file suma application bi pare. Mhm. waaye ah, si application bi dañ ma laaj de reason. ma def ne dama bugg a waxaa ma pour affaire backway boy si lu am. affaire backway boy mu ngi nekk ministre of um, waaw xam nga soo léegi ma dugal affaire yi. mu bañ maa kool. ma kool ko mu bañ ko jël benn taalibe koo xam ne mu ngi liggéey ministre of um, foreign affairs. mu ne ma ne yow yaa yàq affaire yi ma ne kon hi mu ne ma ne mu ne ma ne waruloo binda ne da nga ko bugg gis affaire baak baakuwee. Mm-hmm. mu ne ma ne da nga a binda I just want to talk to him that's all but don't put there about baakuwee issue that's why he's running away from you li moo tax. te loolu moo tax te démb duma dee run away. waaw loolu moo tax yow nga ñëw léegi nga nekk antaay daabo 100 pour a mi man munta yóbbu réew mi yow nga tuba Dabo campaign ak moom over length and breadth of before xamuloo ala londo le filta la bi daf ko fili léegi du mun a yóbbu réew mi kebaalo kañ nga xam loolu bi bii kii ñu ngi ko interview ñoom Fatou Camara lay lay toog si rajo bi ñu ngi ko indi indi mu ngi pare pare mene den de wo ala londo filta la saa ko dum loolu bi daf ko fini kii du mën a yóbbu réew mi de réew mi de baro de moo fi léegi su la daa bu ooyoon nag am nga mbooloo bi ko élection nag ngay jegeeñ si man te ñoom ñëpp dañ soxla mbooloo dañ soxla plateforme yëpp so don't be surprised though that these political parties would want you to endorse them ma including UDP including today baro dafa taxawal parti including GDC APRC PPP all of them can mm. contract you man maa ngi UDP baro man foofu laa nekk UDP <laughs> président baro man nekkuma dof de ah, fu tooy rek président Barrow la nekk waaw ah. waaw fu tooy rek mu tax man nekkuma dof daxaw daa sinante rek mu ne ke babu ke ɗon ken senke e eh, yo tan mamma ke UDP président Barrow de ñim banku ni momo lafde baraka he eh, tara UDP eh, président Barrow mm-hmm. man foofu laa nekk UDP président Barrow waaye yow naka nga gisee Barrow tukkee mi dafa bari waaye xam nga déedéet ah, duma si wax dara léegi yu ni bi président Barrow laa nekk du ma si wax dara si affaire Barrow léegi kay loolu naka nga gisee tukki ak xaalis bi nga xam spend nañ ko yaxala in six months yaxala you spend over two hundred million yaxala Yaya Jammeh sax amoo si fa waaw in six months yow naka nga gisee loolu loolu li yaxala xam nga xaalis su bare they don't care mm-hmm. these people today loo xam ne Yaya Jammeh was there for 22 years loo xam ne musu koo am mm-hmm. that is what this government have in two years that's why today they are, you know, Gambia, 30, we have a very strong uh, economy today. We got the money. The of money, the government, they cannot say they don't have money to help uh, these people like uh, Nyom, uh, Nyom Ndogonjai. If you, you see, the of money, you are UDP double. You're in go. If UDP double, they cannot even take care of those people who, you know, they sacrifice their life if they can take care of those people, how do you think if they be, uh, if they are, if uh, Dabo become the president, he will take care of us? waaye yow déglu Nogoy Njaay wax na ne Dabo yónnee na di jox na ko xaalis yónnee na ci moom ah, defal na ko if you things yi am na yu mentionné loolu la ko Dabo defal. ñaata Nogoy Njaay rek ah. Nogoy Njaay rek. ten thousand bilam bi moo ko fay ah. ma ne ten thousand wosan Nogoy Njaay kenn yandi bi moom moom yaa indaana pain lebal mom yala ko a ako ako ako e nyanta kam na wanda ya fara yala furungol yebe bondije mu a ha ya jele hey ya jame na ye bute barba har har na ye buton lo viable internal paint ako lo la ilaha illa a lo e da bo bida bo mun man ta yiro la ilaha illa bo ya jabe abu abu ke bute amma ko to ko ma dedet internal paint awon bula jululu mala ima nuru jahani bi me fa ko so do hanibi ñu ñep it doesn't pay. déedéet waaye lii moo am. ñu <laughs> ni yaa demee Canada fa bii. la ilaha illallah muhammad rasulullah. so yow Amin so si yow yofi xaalis bi yàq nga ko gisee. yàq bu ma Fatouba Barrow Foundation bi nag ak tamit 3 million bi. Halifa Saleh ah, Halifa Saleh wa ah, Halifa Saleh uh-huh. wax na lii. Uh-huh. Halifa Saleh mu ne. Mm-hmm. Ah, office of the um, first lady. Mm-hmm. is a waste of taxpayers' money. waaye UDP ñoo ko endorse. bare biiliŋo e eh, a jamane toora a ah, ye tolle toora bi ñoo defar bi ñoo bil um, budget speed bi 2000 and budget bi 2018 budget jeex na wala nan koy ko halifa sallamu yuro le ti yuro long gambia lolu um, wax na leen ko ñu bañ so lolu fefle di million bi yolan mo si sete eh? hay xam matedi eh, hey mm-hmm. ñu ne jellu jellu ah, a ah, jellu a jettuko faaleɗa wona guyka poliño ko de wa jello buga ndu saca mhm. saju ko de lolla buga mana pour investigate lolu ah, ha waruta jal two days mhm. mane the police are there that is their job the police can call and confirm haalis bi how do you get it how account bi naka la duggee fii naka la génne fa they can know within two days laa la wax mhm. they can do it waaye mane jettu ko faaleɗa moo fa am jettu ko faaleɗa wona guyka waaw waaw suma sista la de cabinet daaba moo tax ñiŋ kabinet o resolfuta daaba mu ne mhm. niŋ sunkaroo bota la mbanna UDP masa kunda sodu la sunkaroo bota la ñu daha Fatoumata Tambaja ñu daha OJ ah, kii tamit naka la kii naka la mhm. a ah, ah, information ñu daha ko mhm. waa seetal te moom moo tax de ma lii moo tax ma ne baro jox na cër yi yëpp cër yi yëpp cër boo xam ne nit war na koo jox baayam jox na ko ko waaye léegi tey léegi dem doom bi tamit màgg baro tamit dafa manqué ni yéen xaar so baro daal bépp cër bu mu waroon a jox daa ba jox na ko jox na fi mu nekk la amin gune màgg na ma ne bàyyi ah doom ah, ah. bi lu mu bëgg a léegi bàyyi bi ñëw fii du fi falu lu mbota bëgg la bar bëgg waaw waaw hay hamma tey eh. yéen a ngi seetaan télé càppaacoli yéen a déggali wax fii ci face à face ci Gambian Talents moo am ah ñu nekk ak moom rek di waxtaan ak moom ba tey issues yi nga xam ñu ngi xew puupu ñu toog rek bu yàggut gis social security gis nga development si xew foofu commission bi dem nañ def seen research I mean uh, def seen inquiries and eventually ñu génnee report jox ko président Barrow explainal ko ne ko ah fi mu nekk nii kat ñun lii lañ gis Manjang mi nga xam ne yow yaa ko fa teg bi mu ñëwee dafa gestu yëf gis social security gis ne yàq bu bare nga fa doon am gis ne mismanagement nga doon am foofu yu bari nit ñi loo xam ne disaavuñ ko lii xew foofu yëpp was not in the interest of the mu joxe ay recommendation commencé di taxawal ay sarta loolu moo merloo staff yi xam nga dëgga dëgga waaw dëgga dëgga dëgga mm-hmm. ah, naka la ah, Manja liggéey na mm-hmm. waaye moom tam yaaxana tuuti mm-hmm. parce que soo gisee ma ne yaaxana Manja waruta nangu government bi man maa yow suñu taxpayers money ñu jël two thousand pound dollars hundred thousand dollars di ko jëndal téléphone loolu warut dañu waxante dëgg rek te yàlla tax mhm. loolu is non non mhm. foofu ah, man na xam naa ne because I talk to people ñoo xam ne ñu faa liggéey mhm. ñunu ma ne dëgg dëgg ah. ah liggéey na de waaye changes boo xam ne loolu la bëgg change ñu ne ah, moom dafa lekka ba pare after lekka bi la bëgg a change xam nga dëgg dëgg change boo xam ne mu ngi koo def léegi añ na ndaka kele de bari mu naan na moom mu jël fuun bi ba pare tamit position bo jànxa boo xam ne mu ko fayal loolu mm-hmm. ñu ne kooku mm-hmm. jànxa boobu mun naa study loolu University of the Gambia mm-hmm. mun na ko study so loolu is a taxpayers money pour ñu fayal ko mu dem Ghana te loolu dëgg la ah you know as long as mun nañ koo ah, mun na koo jànga loo ko fayalee and he go to a foreign country te lu waa sambite mi ñoo ko fay ñun waa Gambia lu moo lekka ak yooyu yëpp nañ waxante dëgg too much xam nga so léegi moom tamit foofu la amee dat eero mhm. waaw man foofu rek. yow si sa gis-gis Manjang dañ ko war a dàq ndax dañ ko ko war a bàyyi. man euh, foog naa because of euh, Mr Buba am na ko mhm. man dama teg ne nañ ko fa bàyyi mu continuer waaye am soone mhm. loo xam ne euh, mistake boobu moom am na ko moom Manjang dana daa fu la njan Manjang léegi aba kelale coc because léegi-léegi Manjang dafaa xam ne ah, a ah ñaari ba kandet su ma defee lii rek maa si boobu na la léegi léegi manjang manjang mm. mun naa toog foofu thousand years du du dara te du wax dara because xam na ne léegi léegi they are watching him mm. xam na loolu Amad Ba toog nañ barki last couple of weeks ago rek mu announce Saudi Arabia dañoo yóbbu thousand youth Gambians anywhere from university lecturers all the way to ay mates ay mbindaan naka nga gisee ah, loolu mm, mbindaan Gambia mënuñoo pour ma ne government boo xam ne mm-hmm. boo xam ne mënuñoo produce even good mbindaan mm-hmm. naka la ñu produce <laughs> man de jël wax dëgg rek Gambia mbindaani Gambia yi uh-huh. fan lañ jógee Casamance ak Guinée man de musuma ne Gambia ak yu professionnels mais mais suma gis kii Hamad Ba mu toog di wax waaw seen recteur ma ne eh ah mu ne So you think noonu nga ko gisee. so you think war nañoo seen booy pour ñu dem am um, uh, youth Put pour ñu dem. mukk mukk Saudi Arabia these uh, people have one of the worst record that's why you, you know I did my best mm. to ensure my one small boy Gambian what the heck is going on in this country before they will send you. Mm. That is what I can do. And I did it. My guess, I uh, my post different videos about it, and then I have also raised my voice. Mm. Why, why, guess nga? Ken wa it? mu dem fale BBC mu ne waaw we don't sign nothing ma ne ko ne eh akul laabaay la. non because ñëpp a ngi wax yéen wax ngeen. ñu wax ne ñëpp a ngi koo ad ad. I mean, uh, man, suñu uh, waxu doon they will go away. They, they, they will, no, they will go uh, ahead with it. We serve xanaa xam loo ma wax la leen na. gis nga there are three branches of government the legislature the executive the judiciary in every country unanimously is agreed ne the fourth arm of government mooy media <laughs> the fourth arm of government mooy media So we are ah, atule yaya jame bo endide bari. We are very powerful. Baro fana fedo putale sai. Nyimbi dia sai. Baro fedo eh, ah, eh. eh, bla. E ima loya aha mane. Where are you? Dr. Cisse. Jehna mane. Hana nga su taxawé dina win. Cisse legi legi ne. Du ah du win. léegi win. Tojut fen. Dede non ñu bari ñu Uh, no good good good candidate I mean am na the personality am na xam-xam hani yaale wonon political faham so ñu ne mu taxaw hani wonon political faham ha ni uh, ning strong because because man dama xam ne UDP uh-huh. i manta lundi la because ngal ko modul am na bije ngamo jela konyo ko inin docteur ñoo jël pour ka fay ko pour ay na join UDP pour isa fenko diala mm-hmm. isa ke e ila candidate eh, oɗo mm. bare amariga mum fan kay ka fo ɗoktay ko iba usle ba domple natawde fa kaba udp wosamo ñinni ñinni ñinni wosamo iba usle ba domple wolo won tenga fo andi fo wolba kela oh, iba usle ba domple mhm. nga hani candidate kilita lundin baro a muyla kayrote ko any ah, ah. he's not a He's not a member. But left cookie no understand. Mm -hmm. Yambole. Mm -hmm. But naka resigned. Uh -huh. I resigned mune because of abota UDP le because of uh, because UDP la lundi. Pura lo coalition lo ngamel. For UDP la malon. Mm-hmm. So binu mo ning jam fatige ning uh, ning jam fat momu yala ala life Ricks. What time ko bi dafa during. Muna. Ngo fa sign electoral ba UDP bang. Fo sa loyal ba UDP bulu bang. Bar ko biri ban ton jindi kan dantim bridge. Yon don ke ba ye wuraje ju kan zango. ah yow buute je hay hamma taydi udp e eh, nko no hewoon nka bonan a ah, janale to a ah, dañu joge banjun to mhm. ñun lañ wàccee foofu mhm. loolu moo tax bés boobu ma dégg a ah, looya daabo si meeting bi mu ne waaw a dañu ñëw bi a Dantu Bridge ñu wàccee suma a ni a suma lifini mhm. suma waaw waaye léegi moom mu ne dafa am ay ñoo xam ay ñoo xam ne ministre lañ woon déedéet mhm. na wax turi ministre boobu rek ministre boobu nekkul kenn Yankuba Touré la maa ko gis ni fataroo a wolde ko tuuréerum fu mu taxaw abaroori in tomboron juwolle bala mu ngi amee lifin ah, lifin mobile phone loolu la amee mhm. xam nga time boobu mhm. lii moo am naka la ay lifin woki toki yooyu yoo hamne nga akayeleti na ka flip o black one mu yalong a ika ika a ika kam del ke bill e eh, fremon o fun sifa wala babulu no abalu da badiamo prepaid what time e eh, o fi malo wor man bal ko kan la mm, yanko bature a ha yanko bature mu fa taxawon bes bobu yanko bature mo fa nek lolu mota besuma dega fofu loy da ba def di di wax ne waaw yenn mota ye jindi ye eh, iliba man dedet bul wax a borom a dafa am ay ah, ministre moom ministre bu am ne kooku moo fa nekk waxal turam moo nekk Yankuba Touré moom kenn moo fa nekk. yow loolu da nga ko fekkee. ma ne bés boobu ah ah. ma jël kola boobu hello kola hello kola dafa mel ni kola boobu nekk di wax Baba Jah. so I um, mean waaw doon celebrate loolu bu yàggut nii Baba Jah bés boobu ah bu ñu dóor ah mhm. ñun yëpp bés boobu ah, mhm. ah, ah li fi ah, dañu dox mhm. jógee Denton Bridge Bond Road lañ jaar xam nga Bond Road da nga Banjul fale ah ah mile two mm-hmm. wa bon road noonu leen jaare bés boobu mm-hmm. nta ndata ne UDP la bureau la woyatara mm-hmm. UDP la bureau fele yajele Banjul bunjango santo UDP la bureau banu woleto ban bunjango bunjango Banjul bunjango la ah loya da da tabale office o dala loya ah, na ah, suñu ah, na bureau bi ak office lawyer dabo is less than uh, five minutes walking it's not even far you can even walk foofu moo nekkoon suñu bureau bi what moo kon benn a su ko yow da nga safoon sa parce que UDP dëgg dëgg nekk loolu waxan xanaa gis loo suma picco yoo xam ne yu yu yooyu laa post ah 1994 gisuma ko demal si suma Facebook you see my pictures 1996 man maa looya daam man maa looya daam in 1996 so kon yow daal sa problème mu ngi dooree bi nga demee foofu noonu bi nga demee Gambia bu ko gis looya daal bu mu bañ ne du la gis daal foofu la sa coow. déedéet ah. hmm? déedéet. déedéet du loolu foofu nga commencé di agent looya daal bu Baba Jah loolu feeawut di Baba Jah. maa nekk ni loolu feeawut di. maa nekk ni waaw. Hmm. wax na dëgg that seem right there ne ko that seem right there. maa nekk nii na nineteen ninety six hmm? mu ngi ci suma Facebook bi soo demee suma Facebook di nga ko gis. lii nineteen ninety six. waaw. man maa Lawyer Darboe ñoo nekk ni seetal Lawyer Darboe mu ngi nii man maa nekk nii kii moo nekka a aja kii jigéen bi kii a ah, ah, ah. jigéen boobu naka la a Ajam Seka maire bi maire bi moo moo moo nekkoon boosu ñoom Ajam Seka maire bi maire bi temps bu maire bi gaañoo la beneen meer jël. Mhm. temps bu ah, kooku feebar la Ajam Seka jël. kii maire bi ah, moo nekk aja Jambanding daxa Dramé mu ngi nekk ah, Banjul fi la dëkk dem naa ba këram Tabakoro lekk naa foofu ñu mu ah ñu mu suñu ah. this loolu ah ma lii moo tax ma ne. Mm-hmm. man nekkuma UDP 2016 de. Uh-huh. déedéet man UDP uh-huh. 1996 la. Oh, ndama nga kudo juuto ah ndama nga kudo juuto sama doon waaw. ñi musu ndum uh-huh. ndaata la faaya bés boobu ah mm-hmm. domo ro eh, eh UDP 2016 ñooy ñaan ñooy UDP ba UDP daabo ñoom pata ñoom pata ñoo nekk 2016 ñoom pata ay bojo bojo yi ñoom la At the work, ne ko ak ca boog anyway wow. Baba ja, xam na na interview bi am na solo um, yu bari ñu ngee xew suñu dëkka on a regular basis on a daily basis we are seeing things Legi demonstration koo toog every day ñu ngee demonstrate <laughs> waa bariwul sax pa yi dañoo toog demonstrate yaa jamel ba ñam farin si demonstrate <laughs> yaa jamel ko mool ba tiñaan si demonstrate naka nga gisee this issue of freedom uh, everybody can just get up wajay kat marseille sax dañu démonstré légui hey. Mhm. moo fi freedom lu ndé mo fuma freedom lu ndé dañ ko abuse. la mo fuma fi nga c'est mo crasi ah, ah. wala nan ko ya jame na bote na nko na all ah. video la ijube da nko yaya jame na bote ni mo ci dem ibou manja ta gambia sa banol eh, imam baroje <laughs> lungoli ba wata waso bil hakila lungoli ba wata wa sobi saburila bi ba wata waso bil hakina wo sabu ya wata wa sobi sabur ndeysaan atrafa fanam patata sai ba so <laughs> your demonstration be your folklore it's it's it's healthy. Did it? It's not. It's not healthy at all. Mm-hmm. Yalong okay ah molie ah yalong ah kodol biye mol sa ah sino ya kacha mu yalong ka imam fin dibanda. Mm-hmm. Yaje bari ndenga ndenga amira mm-hmm. modol bi ah na biye ikafuni ba abiusla. Yaje. ndela jeeroto bari dool bi je wolde ñantala pour ka finde ke la balamba yata kayita andu fana moolu fana ma ñanna pour ka je ko ñim moolu munu ka finde den ka protest banko jawol banko jawol tende ila ñantolon démocratie banko a ñanta kake wole kam mm. woto sa ni wo moolu fintita pour ka fe kele ñantolta ka finti dag dos lobi dos lobi de heddi uh, ah, you know de heddi fenko yajel mm-hmm, mm-hmm. so amanka woti yajel ila mm-hmm. ngo ila ñantolon démocratie heldiriŋo baro ye wole lon ko sain sain de fo nga muña yajin mm-hmm. mm-hmm. so wala na bilungo mon nyaba a nyin ko bela be bata ka ba hapun gan gambia is mm-hmm. because of baro ya lonne ko sansa is when end of is end of the eh do ya america lo la when end of is end of hmm? akana ke ko ajuwe fumu la fendila ko dai hey allah akbar ite hey muna gambia no kunu ke mire nyama ni gambia no bi man kelinde kunun na mm-hmm. anin bi iman kelen bi gambiano la aweta baki yele nyanto lonne gambiano ya no ko dew ya machine hat big time mm-hmm. so sign dum it is not any president mu yala bina nga aba mess up with them mm-hmm. hani barako bi aba mess up with but you think demonstration is the solution though sometimes ha don't be that salad not all the time ha, not all the time ha but demonstration definitely a jar salad ha barama ke demonstration o bedina ba dol bije definitely a jar salad puru mazakunda salad ya demonstration aka a, a, a aka tinna le president ka hakkilotu because ka tinna a ka fa ha mbaɗum kada ñengede kaatu ningake dembañol sa fendi o ningake ñindol sa kide o ningake ñindol sa kedem yajan so wolani is very healthy pour banko ka watini wati mol ka fendi ka protest ni kuja mu yala ama ñiña den ibaje wo fana ka tinna le president fana ka hakkilotu wolanan koy ko manjang mhm. manjang ne manjamurun mhm. man jam ba tara je one million years hani budu da a so baro 3 years be after 3 years dafa give up na 5 years la mo def baro 5 mm. years akaje 5 di xam nga constitution wala ma fi taxawoon man a 3 years waxatuma ko maa ko waxoon démb waaye tey waxatuma ko te 5 years la moo am waaw waaw yaa ngi doon advocate ko respect nga fo non kunu mbari bi maafu waaw waaw waxu. yow foog ma wax Sidi Ndiaye mu ñëw jël si la wax ak yow si suuf nga ne moo ko yor taay. waaw waaw Sidi Ndiaye. face time ak Baro. nii la def Baro. ma ne soo gisee année baa ñëw. yàlla eh, mm, eh, xam loolu xew yow. ma ne. Ah, su ma taalibee ñëw fees foofu def nañ ko gars yi mer. leen ne Lawyer Darboe Baro daf ko jël def ko ah, vice président. loolu prédictoon nañ ko ne hmm. Lawyer Darboe baro daf ko jël def ko vice président pour tënk ko ndax ñoom ñaar yëpp yu bari duñ mun a ànd place yu bari. pour mu biis time bi mu amoon pour tukki ak def yu bari. Hmm. because vice président basically government running of the government si loxoom laa nekka ah. di ceremonial functions la government bi di def. gis nga Barrow day to day running yi yu si bari meetings yi mu bugg. Barrow dafa taxaw his own party mu oo OJ apologize ko. Mm-hmm. mu ne ko ne OJ xàkkootuñ ne ngaa leen di mesop tam mesop al xàkkootuñ nana. mu mu ne ko ne loolee daa bulaat nag ngay bay mbaalal naanang su paree mu dem si Faatumata Tambajang mu ne Tambajang naanang lafta pour hakkootuñi alsalo miste ko ye sotole me sobtale Faatumata Tambajang naanang mm. wala ba la maa la ko wax yaa ngi maa la ko wax prédicteur nga ñëw ne euh, ma ne su coalition amee dinañ baro barabi tale ay fatmata tamba ñaw kumandina bak a place o diyala aba oje kumandinenam aba place o diyala anin fenke diploma fenke diye jaw nko hende moom mu ngi fa adviser la ko def hmm? so dafee na oyaat ñoom ñëpp mu jox leen place ngaalu ne di a to kela ministre ati bari oje <laughs> hendi ka to kela ministre You come and see me in my office, I will offer them job. I'll jump back to Yeah. <laughs> Ngene hondi dum kai ko fo ga ga fo lo lo lo. I fresh pa wa no le bimbam kom malo. Eh, you see guy funding kelo. Never do good, nyin It cover her when they I make sure when they come and see me in my office I give them job. Uh-huh. Are you kidding me? So you have to come to your uh, office, you give them job. Mm -hmm.

Ah, dégg ngeen li mu wax waxtaan wi ñu def ak moom ci personal life am loo xam ne xamuleen ko woon as well as the current political situation of the country ah, Baba Jah am na plateforme ndax day waxtaanee lu nekk ci liy xew ci suñ dëkk liy xew ci biir Gambie te gis ngeen ko dégg ngeen lim jot a wax ak ah, lim jot a génne fii si xam-xam. Ah, ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan di ñu déglu ci Facebook bi fu ci waaye nekk ñeneen ko ñu àdduna ah, penku xarpu ngopp wala ngalaanu ñu yéen ñuy topp YouTube ñu ngi leen ay bëggee ñi ñuy seetaan ci Twitter bi ak Instagram bi wala Snapchat Gambian Talents ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax ah, di leen bëggee di leen gërëm leen santa seen déglu bu rafet woteef bi jegee na ndong li nag ndax yàgg nañ ceeg Baba Jah am nañ two hours ak moom dafa ñëw rek ma njatta ko ne ko foog rek ñu def interview bi waxtaane yu bari def nañ fi two hours ak moom Euh, euh, euh, pour waxtaan ak moom. te 15 minutes lañ waxoon waaw ñu dem rek tàggatoo Baba Jah you have a platform xam naa ne is challenging léegi ci yi ngaa def ak yi ngaa wax you get um, threatened all the time waxuma Gambie sax ma ñëw si Donald Trump sonaloon nga fi Donald Trump ba bés ñëw naa sa kër ngeen léegi la fi gars yi FBI bi ak yi bi jógee indi ay hélicoptère ñuy naaw sa kër right eh, lan nga defoon keroog. ma ne suma internet bi yëpp dañu off ite hey. loo defoon. moo foog tubaabu te kenn la noo. loo defoon wax ko ci olof baa ma dama koo xarafar. paaka mooy bi nga tiyee paaka yi ne di ko daas ne da ngaa xarafal Donald Trump. waaw waaw loolu laa waxoon ma ne ko mbaa fatoo kuntu la pat loolu laa bëgg mbaa fatoo kuntu bari. waaw bu tax nga dee waxtaan di ñu bari ne yuuxu. non non was not serious. waaw xam nga. di ah, comedy di waaw xam nga ok ah, sometimes mm -hmm. if you, if you are acting mm -hmm. that is the way you know you have to act like you're upset but you are not mm -hmm. so that is what i want people to understand sometimes I, I, come and say you know i'm serious so it's just like that is the way how that video is supposed to be so you were in character wow ah, Exactly. Uh, it wasn't like you were serious. No, I was not serious. Okay. And so at the end of the day, wow. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald waa bés bi bi boobu tamit went viral because man seetaan naa ay news. it was million views. waa Amérique waa mhm. ma ne. fu nekk man gis naa ko si news yi. ma ne local news ma ñu ne upset Guardian mhm. Guardian mhm. Angleterre. ñoo ma génnee seen newspaper bi. moo tax ma ne. looya daa ba tojul fenn amul benn ah, benn ah, newspaper ñoo xam ne mu ah, mën nañoo bind affaire am. Uh-huh. man de gars yi den bind nañ. waaw ah, Israël bind nañ. Eh, muslim muslim threatening to kill. to cut Donald Trump. ñoo ñoo ma ne ñu ne. Mm-hmm. Eh, eh, to circumcise Donald Trump. waaw non ñu ne angry muslims he's kill. moom ñoom ah, ñoom bi because am nga they need ah, they want more view and attention mm-hmm. bés boobu man maa nekk on the front page that's how they put it xam nga because man I am going to kill xam nga mm-hmm. te bés boobu waaw bés boobu su waaw bés boobu suma headline bi mm-hmm. dama dama binda ne if some Muslim ah, here Trump say he's going to ban them. This is how some people will react. react that is what I put. Oh, but so, Hamga, oh, so, so Lola don't act. Reaction wow. Muslims, ha okay. Wow, Hamga. Okay. Lola don't act. Where but unfortunately, they took it to another level. Hamga. Mm -hmm. Mane, China lalawa. Mm-hmm. Suma talib sarahule. China la deka China. Mm -hmm. Huh? Mm -hmm. Muyo nema the link. China lalawa de. This is <laughs> Why? Eh, because international news non la mode 11 million people watch that. moo tax ma ne leen waxal Lawyer Darboe man ma ne tojul fenn. càppaatul moo fi toog it's interesting to know about that experience. Um, it's interesting to know about that experience. But that um, experience, mm. I went through a lot. At the end of the, you know, it was scary, and I have to go on the on the investigation. So I didn't know in the helicopters, face and, my, internet be and my internet and everything, you know. So mm -hmm. they come to my house. You know, like my faker, I was at the gym. My new, you call me man leen xaar leen ma so biñ la koolee lan lañ la wax ñu ne ma ne foo nekka man leen yéen a nekka kan sorry ñu ne ma ne ñun ñoo nekka nangam lii moo nekk suñu liggéey nangam lan waaw ñun ñoo nekka di CIA and di CIA and FBI dañ ñëw sa kër we want to see you about the recent video you made mm. man leen ok where are you guys ñu ne ma we are at home mm-hmm. man leen ok uh, I'm on my way ñu laaj ma where are you at man, I cannot tell you where I am. Mm -hmm. which type of car are you driving? Are you driving your white car or your sil? Hey. Yeah. Oh, yep, yep, ham. They know all the money. Eh, buna. Mo funu tubabu da kella no. Say yep lañ xam ban fon moto nga dawal. Ñu laaj la ban dawal. Exactly. Man mm-hmm. la I cannot tell you none of that, but as long as you guys are there wait for me, I'm coming. Mm Man fofu la drive eh, ma uh, ma call suma lawyer wax suma lawyer suma lawyer bi mu ne ma ne bu wax dara. demal foofu nga war a let them give you your business card your lawyer will respond. Hmm. xam nga just tell them that ma dem foofu ma arrive you know ma fekk ay moo la ilaha illallah hey wolo ñi wulu ba katangol motol ko ni nga dawda ko na benen police ko akilo ko mon ñima kayrol te ba helicopter ma pata pata ko la ilaha illallah ite yeb yo abe mo kilo rek ko america police o jota ya ñu tan fanti mo fin kilo na wol no ñu furu furu ko bi moo fi kii naata wol no ma ne bés boobu yeneen hmm. nit ku ñuul rek la ñoo jël si de ah. moo nekk càppaacoo li mi bés boobu man la ñoo jël si waa bés boobu ma ñëw rek taxaw gaara suma moto man leen maa ngi ne lu yow xaraasuñ la waxu non non just trying to give comparison suñ police yi ak non they are very professional dañ ñëw ñu ne man ñu ñoo nekk kaar yi mbaa amuloo fetel man li damaa ngi amee fetel waaye suma fetel bi mu ngi mu ngi si suma biir moto bi because ñoom am naa fetel hmm. because you am fetel ndax yaa ngi amee fetel ndax mos am problème bi yëpp hmm. hmm. ma man leen déedéet aw ma fi fetel waaye maa ngi amee fetel si suma biir moto bi ñu ne ma ne ok fetel bi da nga ko register waaw xam nga non léegi ñu ne ma ne léegi da taxaw ñu sàcc la man leen ok ma taxaw ekkati suma loxo ñu sàcc ma ñu se xam ne am aw ma benn fetal mhm. ñu ne ma ne ok ñu ne ma ne waaw dañu gis nga jagar lii soo pour nga lifi lii ah, dañ bëgg pour ñu ñëw ak yow nga àndaa ñun ñu ko suñu office dara man la déedéet doo ma si seen benn office man leen jox leen ma seen business card ngeen dem dinaa call suma lawyer suma lawyer will get hold of you guys ngeen wax but right now bugguma wax dara te te bugguma dem fenn all I want loolu moo tax ngeen jox ma seen information bi My lead naa ko what is my lawyer then you guys can go ahead and talk to my lawyer about it You know, you know ma ok You jox my seen business card gars yi bëgg tamit wax waaw you know Wow. xam nga so the maximum information so at the end of the day man leen man du my wax mm-hmm. give me your information as long as you give it to me now mm-hmm. it's okay ma mm-hmm. bëgg them. Yeah. Um, <laughs> you know but you don't have uh, no right baja baja baja mm, man how much? How much? ma seen ma jël loolu alawloo ñu dugg sa néeg déedéet man alaw ma ñu dugg su ma ne waa xam naa ne they went to my house mhm. they meet my roommate there they knock the door te man lañ laaj mhm. gis nga police du tonde mhm. police su demee sa néeg ku ñu soxla xool kooku lañ laaj waaw soo ñu ñëw ñu noog bunta bi ñu laaj ma ñu leen ne Baba Jah fi and they call me xam ñoom de know my number they call me man leen nekkuma foofu ma ma mit xam nga ma waxaa ñooñu so that's it Mm-hmm. so after xam I léegi ma jox the information to my lawyer suma lawyer be calling. Mm-hmm. You know, man. Wow, you you are dañ put on the investigation because garden buga bugga pour xam ne dega, dëgga you are capable of doing this or not so just be patient xam so mm-hmm. at the end of the guy start you know do their things xam naa ne dem leen suma liggéeykaay laajte suma co-workers yi ndax man am not fit pour def so after xam nga ma call suma lawyer ba suma lawyer be. Mm, mu ne ma loolu la ne ma you cannot do anything about it bàyyi rek they are doing their job. Mm. loolu seen liggéey la. Mm. they do that so yow sa sa liggéey kaay xam nañ ne you are doing this comedy thing. waaw xam nañ. oh ok amuñ mhm. ci problem? no because you know they defuma dara loo xam ne it break their policy. The Hamna, if I did anything that break their policy, that will be that will be my last day, you know, hmm. working for them. The Hamna, you know, they know it, and you know, my co-workers, they always say. Uh, Below the heavy ugly, you took in them banjul what, um couple of times. I'm problem see um immigration wala. si living based on videos yi eh, wala li nga dee def lan laa def musuloo am benn problème lan laa def a dama laajte you know defuma dara man def ma dara a ah, break ma ben law you know what i should do is to go out do my holiday and come back again and that's what i did you are too focused on the gambian politics yeah uh, law america did it buying donald trump did uh, uh, <laughs> uh, by the way yen ñi ñuy sétane baba ja daf wax lu am solo that i would want pour ñu jàngee ci ñun ñëpp mm-hmm. because mu ngi wax naka la interacter ak law enforcement gis nga ñun gambiens yi dañ foog ne wax moo ñoo génnee si dara mm-hmm. jaay gaaw mm-hmm. it doesn't work in bitim rew <laughs> because anything you say can be used against you in a court of law exactly Nen jange si baba ja ak li wax police bu la ñëw jël si it doesn't matter what it is you have the right to remain silent because anything you say can be used against you in a court of law so képp a kuy seetaan nga nekk America nekk Europe wala any foreign country even Gambia si bopam. you can never get in trouble by being quiet by being silent <laughs> you don't have to give them information soo paree coopérative ak ñoom si yooyu waaye pour nga wax wax leen ne suma lawyer dina leen contact sigal legal advice balaa ngaa wax because li ngaa wax mun na laa dugal si problème mun na laa dugal si tuuxi duuna mm-hmm. because any information buñ jëlee woon si moom dinañ twist seen question ci around and around and around the same question just to get you in trouble so it's very important pour ñu jàngee lii baaba you remain silent and talk to your attorney remain silence mm-hmm. nga contact lawyer gën gaawee lawyer bi wax ak ñoom mm-hmm. It doesn't matter like what type of offense it is, whether immigration, la, whether criminal offense, la, whether domestic violence, la, drug-related charges, whatever the case is, you have the right to remain silent. I think that's a very good tip. Uh, Baba Jere si loolu You uh, them finally like ma laaj la Sénégal yaa fa toj de ndax ñoom waal ñëw na Seattle ma ko mu égal la si kaw stage bi recognize la Serigne Thiapathioly Sénégal tamit yaa fa toj de bari nga Sénégal Sénégal de amoon benn sëriñ koo xam ne moom fa ëpp taalibe foofu laa dee dal su ma demee Sénégal gaa jox ma hôtel hôtel laa dee dal mhm. I stay in a five star hotel fay ma benn butut mhm. taalibe ñoo maa lijjalante rek yow Sénégal mhm. caka fa nekkoon damaa dem fii ëllëg gannaaw ëllëg nekkaat fale gannaaw ëllëg ma nekkaat fale taalibe yi nii la capati fii capati fale. ma mhm. nu ni mhm. Senegal uh, déedéet ah, déedéet man ka you know I was in the capital then from there I went to Saly. Mhm. parce Portugal laa demoon. you ma dem ñëw si ba ah, Laguna. foofu laa dem toj xam nga I stayed there for almost four days then I went back to Dakar tamit. gisante taalibe ñu ma war a gisanteel xam nga def loo xam ne loolu laa def xam nga taalibe ñëw ah, gisante. sëriñ bi ziyaare ma. defal ma bem baax ñu étage ba mu kawe. waaw waaw xam naa ne li ngay def yaa ngi am jabar ak doom. déedéet ñaata doom nga am. man duma cagatu man ma doom nga am. benn. Ah, sa jabar a ngi Gambia. waaw yaa ngi ok um, cagaju ndaw ji. xam naa ne ñu ngi lay topp si bi kamoon naa waaw salse rek ngay def nag noo xam noo xam naa am naa ñoo ma nopp waaw loolu moom dëgg la sanse rek ngay dafa amee ay jeeg ñoo xam ne yàlla na daaneel déedéet rawatina sa sa sa vidéo loolu moom xam naa loolu dafa am ay taalibe yoo xam ne seen capaatu lépp lañ bëgg a nukka waaye man dama dee bañ waaw am na ay taalibe ñoo xam ne man rek lañ bëgg a nuka waaye dama dee wax mu bang si dégg dem déedéet du waaye yow man ma la am na ñu laa géey tamit ne ñi laa jiiñ tamit ne géey nga Baba Jah dama leen faale ni nga solo ak sa yenn manière yi ñu ne waxee beneen yi sa loxo yi non non it's because of what I was acting ñu ne géey nga ah non non man na ñuy wax ne géey nga non non non listen people who are saying that is because of a key UDP ñoo dem and then they uh, ñoo dem. ñu jël kii non non non non non. moom a génnaat. dama laa wax ah, what bring all those BS. Uh-huh. is because of why UDP ñoo dem. Mm-hmm. they took uh, boob uh, góor ak góor ñoo xam ne ñu ngi nukkante. Mm-hmm. ñu def benn bi suma boppa be ak benn pandeere ñu ne ma maa pandeere góor jigéen lañ ñun ñu ngi nukkante xam nga they put it on their max zone foofu lañ ko def pause because man koo xam ne. moma ko send and daf ko screenshot mu yode ma from there just because of this UDP bullshit politic that's why they calling me gay some people homosexual some people call me he cannot speak English he is they call me different type of name but guess what mm -hmm. I do me xam mm-hmm. nga because hamna you know mm-hmm. uh, last time I was uh, watching this guy Tyler Perry yeah, Tyler. they call him different type of name mm-hmm. you know people always bully him but guess what he's still strong so how are they taking this bullying stuff? no, I know, but sometimes you know they are not happy with it. They are not happy, you know. Sometimes, you know, I have an issue, me and my brothers, they call Hamga, we, you know, then they hulo to Hamga, because special all this saga, because Hamga, my family, they know me. Wow, Hamga, my family, I go through. Wow, wow Hamga, my family, they know me. Mm-hmm. My wife, she knows me, mm-hmm. Hamga. Mm-hmm. But now, sometimes, what they can, cannot understand, when they can saga, this you know sometimes it's too much for them mm -hmm. they, they just cannot handle they call me they say okay bro i think we need to do this hamga so i took you know sometimes you know. no I go through the same. waaw so ma ne. di ma saaga affaire Fatou Camara tamit the same thing they went and put jigéen ak góor boo xam ne ñu ngeen nukkante ñu def jigéen bi Fatou Camara ñu ne góor bi moo ne nga caapaacule ñoom UDP ñoo dem ah, def loolu. waaw maa Fatou Camara ñoom rek ñoo am ak ñoom ma ne ah, wax si Mama Kandeh noo gisee Mama ah, ku baax la di Mama Kandeh moo de. lu mu fi def loo looy daabu ko fi def hani kono kilan nana masi la la la mama kande def mm. boo xool yi waaw ay boo xool mm-hmm. ay lifin ah, ciment mm-hmm. dimbala di affaire school waaw you know ay catastrophe bu am Gambie si ñi dem la dee bokk waaw joxe fa xaalis bu takku ma ne alal ma lii moo tax ma ne Mama Kandeh li def Gambia koota laa wax wa am waxuma xaaf de mm-hmm. inch laa wax sa inch inch bi sax looy looy defu ko paa boobu tojut fenn fenn la ma maama Kande sax moo fi toj ma dem si maama Kande ah, moo gën a ëpp xaalis de te pol bu rafet la de fooguloo ko ah, kenn du gis mu bañ ko ah yow tamit. yow daal amee xaalis de. yow daal doo uh, du ay eh, kaya du du nga no xam nga affaire sanse bi. Mm-hmm. gis nga nit. you have to love yourself mm-hmm. man dama bëgg suma bopa. Mm-hmm. man nit laa koo xam mm-hmm. since ma nekk xale ah suma xaalis yëpp sense la ko de jënda gis nga sometimes ah mun naa dem fokka jaay jëndali fokka jaay dem bii ko two dalasi bii ko five dollars Suma ma ko solee people will think it's cost one million dollars du noonu de uh-huh. man maa mun a te man nit laa yeneen saay dama ah, people ah, niti. teg na man millionnaire la mm-hmm. fekk aw ma dara mm-hmm. sanse rek moo mun noonu mm-hmm. gis nga sanse daf dee sutura nit soo léegi man nag dama bugg a suma boppa tey ah soo nekkee Gambia ngay sanse people will call you name xëy na dafaa jaay drogue oo góor jigéen la oo lii la oo le because yaa ngi sanse xam nga te man nag nit laa koo xam ne dama bugg a suma boppa man suma xaalis leena moo ko dee jeexal apart from my family moo nekk solo macha allah man tey lu ma ah, man tey lu rafet rek laay solu mm-hmm. waaw sa jabar waa fan la Brikama waa Brikama la mm-hmm. gis loo tey lu ma sol jean and jacket mm-hmm. Nike shoe laa sol ah, waaw waaw daala bi Nike la lii jean la jaketam mu ngi nii rafet ba gis loo am na ay góol lifin bii am na ay góol bilim bilim gis nga tubéb bi tamit am ay góol bilim bilim maa mel ni changé rek laa mun yow yow soo ko changé génn lan mooy di biggest threat boo mu sa face moo nekk affaire Donald Trump loolu moo nekk di biggest threat loo xam ne mos naa koo face because fii time boobu dafa amee ñoo xam ne they were sending me different type of messages messages about it. Mm-hmm. xam nga and I went through a lot about that video. I yes waaye yow taxul nga bàyyi di even bu FBI ñëwee sax loolu moom dëgg la ok waaw FBI ñëw nañ suma waaw loolu moom dëgg but ma you were still doing man I handle uh, critics but I have to go through some other stuff so that I can handle it and I have very good people who you know they always advise me ni def da mun you have to go through this you have to watch wax ne yow du dee musa jël critique yow du dee musa déglu yow doo déglu kenn Baba Jah Bokey la mooy déedéet xani xani de lu ko neex laay xani de xani de yàlla ku woo kufunya le bala. Mm-hmm. Ni if you call me me and you, we talk it's fine but it canata online it can it can kuwa fondo mu yalo make. Wa yo yange def di yo yange dem online di wakti ay nit di. Hani de. Nena nga foto to le ba. Nena ma foto. Hey. Ngo a ah, ngo nyadi. lan laa waxal ma ne tottotal la mbene rajo na suñu tottotal fa moo doon bés biñ bindee si njéeme ba waaw ndax géey la waaw ndax du waaw nga ñëw génn tegal ñu ber si wax ba ne rajo boobu nga xam ne benn nit leen dee déglu kenn leen dee déglu ndooñaa fam fan ya fan tooñaa ndooñaa fam fan ya wa jamaa la kaa doon jubee wa foo leen tojoon ma waaw baax na. ah Diop du ma ko àgg ak yow. de jeex na ngeen ndax mos ngaa wax si ñun te li nga doon wax. ba de boobu weeruloo ko woon. fan hani de hani de. Ah. bi ah because aba ñaami. Mhm. njéemé la keesu wolong. ani gambian kambaani wala ba ñoo la siyaatu jàng. ani government kan bano nyi ya ban aya dump kan bano doli ya kanu bulata anduma because of aye banne sa to jan iko farm lesbian old wolon sha to problem old dan go because il after a iju wala imation rek same kam no karam lesbian old gis nga li mala wax rek gis nga pour li mala wax ci gannaaw bi ci beginning of story bi mhm. that story biñ ko binda mhm. dañ verify dañ contact njéme ba lim ñu wax ñu yokk ko ci story bi exactly loolu mooy liggéey journalist waaw loolu yéen seen liggéey la yéen ñun ñu delluwaat ci moom pour verify waaw so yow li nga doon wax fekk ñun dañ contact Njéemé to verify the side of the story. and me am not. me I know she is not because man xam naa case bi. kambaanoo mu yàlla wala findita ka wo kota ka safe kambaanoo ye fake facebook ta a y'a yɛlɛ a fɔla k'a fɔ ko haa o sunkuto ba tɛn dɛ nko sunkuto mu yàlla moo yala yàlla kambaanoo lo jɛn because of kambaanoo ɲɛ a n'a y'a ban dɛ i tɛ sunkuto ɲɛ chase sunkuto ka a tɛ na dɛ ku ñëw di wax ak yow si njëkk ak teraanga. waaw man na. Mhm. if you see ah, man li moo tax ma ne. Mhm. li moo tax ñeneen ñi ñu ne waa cappaacule daf dee waa daf dee saaga ak lii mhm. affaire yi suma woy affaire yi suma lifin sex show bi ma ne. before I will start my show. dama dee waa am come to talk about sex. if you don't want to listen. please go and watch other videos. if I'm going to talk about politics lii naa am coming to talk about this please if you don't want to listen. you can go ahead and watch other videos I don't want to offend nobody. the same thing waaw waaw xam nga waaw so at the end of the day soo ñëwee nga toog nga déglu mhm. loolu la mhm. loo fa dégg de yaa ma tooñ because I don't force nobody to share my video I don't force nobody mhm. xam nga waaye ñu bari ñoo xam ne le aka ne ndiroo kele ma jamaale ne because of na soto nka fa mo le an ko de o nu kante o li moo tax ñu ne man dama dee dem andu fanan tey nit ku ab tey ah, hadamadenw hakiliw la dibi ta gis nga tey ya soo taxawee nga wax sex sex sex people don't know what is sex there da nga wax sex you, you you do the pussy and the dick you do like this people will understand so man like this the way that I come and I say this so that's why some people they they just gonna handle me they keep on writing bullshit about me Chapacholi is this you know I'm very strong. I've heard it Donald Trump I went through it and I controlled that in the grace of yàlla tamit ñëw dimbali ma ma contrôle loolu so other people who are saying baja baja about me dañoo wax rek suñ soo soone dañoo bàyyi man man awma jot pour talk talk fi di worry about what people are saying to be too much you know. most uh, your biggest achievement well um, the, um, being a comedian uh, anyway alhamdulillah you know i had uh, very good people who always helped me out. Sometimes Samga, mm -hmm. they used to come and donate me with some money. Some people even um, I got a Nigerian guy, come Kumajindal. lifin li li naka la laptop bu ndaw bu mini laptop waaw mm-hmm. bu lifin surface mm-hmm. seven bu es pul seven hundred dollars la ko jënde mm-hmm. mu yónnee ma ko you know because I just talked to him and I don't even know him we just watch on uh, uh, Facebook mu ne man sa vidéo yi soo ko connecté loo dee ma ne kon façon laptop yooyu laa dee use mu laaj ma which type of laptop nga am ma wax ko suma laptop boo xam ne boobu laa am and how old is it mu ne man ok I will donate you my brother ma toog rek jox ko suma adresse mu donate mu jënda loolu on Amazon mu forward ko to my address ma receive ko. Nigeria la te you know I even know him. mbokki Gambian yi nag. déedéet ha kii de dimbale na Sol Fraser. Mhm. borom fale. global global property. Mhm. mos na ma dollars. Mhm. Sol Fraser. suma nit la. mus na maa dimbale de. Mhm. waaw fifty thousand dalasi. mus mhm. na waaw. Mhm. te tamit mus na maa may fifty thousand dalasi. mu ne ma ne brother help yourself. kii tamit Haidara moom moo nekkoon di manager of Fale. Karara Karara. moom tamit mus na maa oo. maa moom ak yàlla. mu sutura ma mais ma almost xaw ma thirty five thousand dalasi. maa moom ak yàlla. two Gambians waaw. Ah, no no. Ah, bu ma nekkee Amérique fii. mu jox nit. kooku ñëw dugalal ma ko. man nit soo ma defalee lu baax moo tax man tamit ma leen naa defal lu baax parce que dañ ma may. Mhm. ngir yàlla. Mhm. waaw. Mhm. loolu de ñaari gamben ñooñu ñoo mun a taxaw in that country. and say I help this guy with this, I help this guy with this. But if people can, you you, Do know, uh, is this just a passion or where do you want to take it? Me, this is my passion and this is my life, and what I want is people to take me serious. But if they see I'm doing something wrong, you know, don't make a comment. Call me. Sometimes you know I, I used to be very busy. You know, but do your best and call me unless you get hold of me. Help me out. You know, I want to be the best. Mm-hmm. This is what I want to be the best, and I know I can do this you know waaw yow ñun ñu ngi laa wax amin fii nii ne la nga jël fax li nga def nga jéem a gestu jël fax. waaw eh, eh, eh, ndax lim nekk on air la you want it to be done. on no no no no no no no because what I want you to understand is dégg naa wax boobu mm-hmm. I will consider it. And mm -hmm. I am not a journalist to go and verify. You don't have to be a journalist as long as you have a platform. You are in media. Yes. You can even be more powerful. There is no doubt that you are more powerful than a lot of us because so they're not Gambian media. Yep. Mm-hmm. Linga nga am noonu ay several millions of views mhm. we don't have that it's the bottom line mhm. ñun ñi ñoo toppa for the most part is the Gambian sag li suñ ko fi buggee dinaay dañoo sonal suñ boppa mhm. so sa impact ak fi nga reach you have a voice sa voice dafa mata moo tax information bi nga war a jox nit yi dafa war nekk fact te man na lu ma ko joxe yaa ah, man dama teg ne fact la gis nga affaire UDP bi they contacted me and then they tell me people who are the victim ñoo ma ko wax APRC the ten député APRC who you know they meet with Key uh, uh Key Nakala. Hidinja. Mm -hmm. How do I know? One of them contact me. Wahma send meeting be Nakala deme. Mune mane we see Baro life. Uh, mune mane Hidinja Baro. First time in the we speak. Uh, uh wow. Ten of them. Ten money. Sidinja mm. is doing wonderful. Day. Sidinja mm. is connecting Baro. The Hamnani, huh? People have to be very carefully. If they don't care, uh, uh, if if, they eh, suñu careful ah. Hmm. APRC will go and join Barrow they will form a party. <laughs> maa la ko wax. man advice boo xam ne maa ko maa ngi. Gambian yi maa ngi nuyu ñëpp you know if they see anything that bad that I'm doing help me out call ma si suuf maa yow you hmm. if you think that ah, I did something. Hmm. te man benn Gambian du taxaw. mu ne Serigne Thiapathioum mos na maa saaga. Facebook amut mhm. ku wax ne Serigne ci pàccu lay daf ma saaga wu laaj leen ko loo def waaw mhm. xam nga waa xam naa yeneen saa got people who always bully me they call me names you know you know at, at, it at least if they can do in it you know yeah you know at least you know xam nga boo time. Wow, but if they can mm-hmm. stop it that will help xam but you know duñ ko mos stop waaw sometimes I go through a lot you know when people are bullying you you know I'm a father you know, man, I'm a small you know, they are good. But anything that I do, I want to put a smile on people's face. Mm -hmm. that is my intention. Mm Hamga. -hmm. Why why the uh, the only problem that they man what I'm having is mm-hmm. when I talk about politics. And the time Yahya Deme was here, I was talking about politics and I cannot go and talk about Somalian politics and live in Gambia, or I talk about uh, the political system, uh, what's going on in Saudi Arabia without talking about Gambia. Mm -hmm. Hunger, so it's the same thing that I'm doing so people need to try hunger. You respect people's opinion or else if you cannot that's fine but that is better than saga you know mm-hmm. man yeneen saa you know when people saga me dama dey mer you know and you know my mm-hmm. family also are not happy with it you know mm-hmm. but what can I do? So I hope you know. jërëjëf ah, Baba Baba Jah xale bu xew si jamono xëy rek man lépp di wax lépp. fii ci face à face ci Gambia Talent TV benn benn laa dee am show bi duma ci indi como de képp ku ma ci indi rek da nga def something I will tell you though Gambian Talents we are very proud of you. thank you we are very proud of you. te xam naa suma taalibe nga di nga def. Um, Gambian maata nga am boos di. Gambia. sa sa sa vidéo su ma ko siyaay léegi-léegi nga am moo views. Hi. You can moo come. Gambia needs to open up. ma you consider. dama laa dimbala ma siya sa vidéo bi mu dem viral. li def lu am solo. dëkk soo ko gisee lii am solo. suñ néegó si Sénégal Sen comedian. si ku mel ne every day mu he touches everybody in Senegal. ñëpp laa from current to past presidents to religious leaders to politicians social i mean um, um, people in the social um, um, spectrum educationists academicians, musicians, everybody like Peter had The same thing, America mentioned nothing of Trevor Noah and them. They cabot them. These things bring life. Babaja just needs to improve on some of his things. Exactly. a lot more professional in what he's doing. Try to give people facts in a funny way. And so the sky can be the limit. We need to support him. Limo def am solo if he's giving out facts, definitely we need to support him. And we need to be proud of him. Muge put the image of the Gambia on the map. Nyumusutaham Gambia, because of him, they are knowing about Gambia. This is something that is very Some important. people, if I tell them I'm and from Gambia, they cannot see Gambia in the map. Yes. I have to try and screenshot. Yes. Gambia mm -hmm. We go through the same thing, Baba, by the way. Mm -hmm. I go through the same thing. waaye dama laa wax rek ni ma ko dee waxee suñ nit yi ne ku boot bukki xaj boobu la ñun ñoo si nekka ñun ñoo bugg a nekka public figures and it comes with this man toog naa ñu jël nataali yi beneen jigéen koo xam ne I don't know from Adam ne suma yaay la moo nekk noonu ci àll bi di sonna di amin amut lum lekka whatever am useless amin America nekka di lii just few weeks ago gis nga li tax news boobu demut viral mooy that's the same day that Barrow actually um, uh, uh, uh, call gars yi waa UDP di leen wax ne nañ ko def moom presidential candidate wala ñu ñu they will be conducting coup d'état boobu moo fees seen boppay waaye dafa am jigéen jànka bu def vidéo audio whatsapp seen ko out mu ne Pa Ousman Joof Gambian Talents wax naa ak moom mooy this guy in Denmark Danso um, biñ bindee ñu si moom di di laajte ne dafa di wax ne dafa sëy and like as a gay we did our verification followed our due diligence def yëpp bañ bindee loolu yaagut xale bu jigéen bi this is like bés bu baroo wax li si la xale bu jigéen bi def audio mu ne wax na ak Pa Ousmane Diouf Gambian Talents Promotion mu ne dinañu jàppale bu baax a baax pour yàqa dansu ak yàqawaay UDP because ñu nit bàyyiwuñ ko dañ dee wax lu bari lu critical APRC suñu waxe ci ñom ñu bari topatu ñu wa APRC because li Linda wax UDP Gambian parties yépp non lañ mel <laughs> barki demba la ma GDC mujjee tontu barki demba because binda na post uh, si affaire yi new candidate Mr Kante um, comparing him with Mama Kande GDC tontu with a long living ooyee ñu all kinds of names so ku nekk so ñom so waxuté lu leen favor rek if you are doing something that they like you are the best person in their eye Gambian si non lañ mel ñun sooy wax dara lu ñu bugga lu ñu neex yow yaay di best person waaye bés boo waxee leneen lu uteeg ñun suñ bugga bugga wala lu ñoo support you become the worst person dinañ am fuñ la yekkal waa doy? ñun we have been there with doy. si loo xam ne benn nit ki ñoo wax okoot naanoo daa bu moo binda post ñun ñu siyaa ko waa dooy tontu ñu ooyee ñu si façon yi tur I mean all kinds of names that we are not professional lu nekk GDC this week la ñu si gars yi mujjee tontu noonu APRC for the longest suñ bindee lu tax ñu xeet yaaya jàmmi am uh, Baro Kambi at UDP the same thing all the time so this lady did the video ne mandama dama ne am dama leen a jàppale UDP ak roche maliglo. Dan so moo leen dee jàppale soo man dinaa leen jàppale pour ñu expose Danso wax ne géey la li yegg yàlla ne I haven't spoken to any lady so can you imagine that's blackmailing. and that's create audio. Uh, uh, uh, wax ne dañ man te man dara. I don't know the person. Mm-hmm. I never spoke to the person ñu ngi keroog man tam di same team wax tojangeem ndekoon man maa doon nekk a headline because UDP camp dinañ génn oh gis nga Pa Ouss and dinañ ma saaga man tam di same team what they they make a video uh, they make a picture about me and Pandere ñu ne ma maa Pandere góor jigéen leen and then they also make a picture between me and fatu Camara xam hanga Fatou Camara uh, daf fi ñëwoon. Mm-hmm. so I met with fatu kamara hanga wow hanga so so ah, léegi at the end of the day they went. Uh, they went and say Fatou Camara. Mm-hmm. dafa ñëwoon siyaatu fii dem gisante seen capacité chapati. this is them they were having sex Hanga, you mm-hmm. don't do that because hanga people see the head you know the head you fix the head you know. You can even take this innocent in because even that person's body is lighter than me. No, I you like that. Lolo, fuck sense. comes with it. Gadama bante might bapare educates the family. I'm just sharing how I handle some of this. You have to educate your family. Man from and that's what I'm doing every day. man day. Suma Jabarak, Suma sisters, yek, Suma yaya, yep. They call and tell my mom, Sadom Bineko Fidarul Yakhanindi. I told my mom, we run a media platform. Uh, people tell her yàqal nit yi ŋaañal nit yi wax lu and I do shows that touch lives I change people's lives we post things we give Gambians information which is very hard to get we spend several times tey for example in definitely talk. Hamal xamal ñi kan mooy càppaacoli this is very important a lot of things we are doing that they don't talk about ñu dem si ne ko sa doom fi dara dafa online platform ŋaañal ñi xas rek la fi so to tell you we are all going through the same thing wax ni ak all go through the same thing it's not easy but you have to brace up for it nga it comes with it as a challenge so thank you very much appreciate naa ko ñi ñuy toppa ñu seetaan ci Gambian Talents ñu ngi leen ay bëggee bu baax I wish we could have read more of uh, more of Sen comments yi ngeen nekk di seen waaye yàlla def na show bi was interesting ñeneen ñu doon kolaat sax mënuma woon a jël seen call si because of actually we had a lot to talk to him about daf ma dee daw yenn yi so su fi ñëwee dama koo njakta pour def ak moom yenn yi ndax this is gonna be hard pour mu nangu koo defaat ci beneen yoon waaye ñu ngi koo béggee bu baax a baax di béggee képp ku ñuy déglu di ñu seetaan si jamono ji euh, face à face su la woon jógee ci Gambian Talents TV Pa Ousman Joof nekkaloon leen ci gannaaw microphone bi don't forget to like our Facebook page Gambian Talent Promotion follow us on Twitter Instagram and Snapchat Gambian Talent Promotion follow us on YouTube Gambian Talent Promotion ah, bu leen fàtte nag pour sànni dara ci suñ kees gi Um, donate to us maa ngi share uh, donation link bi foofu noonu léegi nii yéen ñi nga xam ne yéen ñuy toppa these are very expensive uh, running a platform like this is not easy at all so jàppale leen ñu bu baax a baax a baax maa ngi noonu share donation link amen foofu pour yéen ñuy seetaan pour ngeen jàppale ñu ndax su ngeen ñu jàppale mooy jàppale seen boppa it's not easy microphones yi ngeen a gis nii mixer yi ngeen a gis nii amen am um, lampa yi ngeen a gis nii event lépp lu ñuy def xaalis la running a media house is not easy rawatina nag So, ko buggee def fact based journalism comme li ñuy advice to nii is very difficult because that's the most hardest the hardest thing in Gambia the biggest challenge of all Gambian media houses is getting access to information because suñ niti xamuñ loolu and we run away from a lot of things so ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax click leen suñ PayPal account bi rek ngeen sànni fa whatever you can until we come your way next time ci face à face Gambian Talent TV la woon Pa Ousmane nekkaloon leen ci gannaaw microphone bi ba beneen jamono jërëjëf ያን ታሌንት አለ ከኖ የኛ ለማን አባቻኬ አላ ቦሎኛን ሾው ጃሎፍ አርትስ ngali yende o kwa nyulle nata ka musicolu kidimandi nyulle nata ka artisolu kidimandi nyulle nata ka ganyandi nyulle nata o fintindi facebook oto youtube facebook oto ngoy youtube gambia talent muna promotion lem gambia talent muna promotion wate wate nke jubele wate wate muna nke la wate nke gambia talent woy gambia talent woy kantol giɗimanɗi kantol sewonɗi kantol gañanɗi ngam mbiya talen muna gambia talent muna gam talent woy gam talent woy ay wali ba ousmane du inimbala ala iba kuryamuna nafate lah. iba jawya munna nafate jawya labi iba kuriya munna nafate kuriya la nafigi la silamanja kula bambali la silamanja uya fala la silamanja ngomari masale bokelela nafigi la silamanja ja kula bambali la silamanja uya fala la silamanja muna ngomari masale bokelela yow gambia gambia ntalam albani malam nena jeli suso ntere baali janto bi Gambian talent show e eh, mammo ɓe tentola mbal jayila aldal baɗi malam the queen of mandin nene jadi suso the golden voice wow mbal tentola mbal jayila bake mbafalale ko album o kanale disa baɗo ndigi benjamin hall akana fo mo kom machallah Gambian talent show